travailler avec tout le monde sauf ku ko mës a yéen a dee ku ko mës a wax ju bon wala képp koo xamante ne da nga jugoon doon toroxal sénégalais yi président Ousmane Sonko bu seen bi gën bi di waxoon de par ses ñi moom seen wax mi ngi wax ak ñoom kase Barthélémy Dias démb procès bëri na lu mu tëyee loo xamante ne daf koy jël tenir ko Barth moo ko moom parce que bi ñuy wax transhumance mais dafa wax lu am solo côté bi ñu indee transhumance li mu wax du dañ tey ñun jullit yi mais gën gi mbindeef alayhi salatu wassalam dan la koy jangal ci alquran ci ñaari omar yoy nga xamantene dan sunu lu julit yi dal leen tey di dor di ray mais gën gi mbindeef dal leen xooloon gis te gi nek ci ñom mu julit ni yalla ñaar ñi de mënu ma len am waye bu ma amoon ci ñom kenn dama koy jël kéro bu mu démé ay jabotum tu mu dem di ko wax ñu ñu jamo gi tublu mu dem jël jaaseet dem rek mu ngi koy wax ñu dem fa mu fa mu baatu fala daano ba mu dafa tu budul won seydina omar bo tuk dugg ci bir dina l'islam tay boy julli yow da ngay laqatu nas khalifa buy jul day laqatu kérok bi hmm. lolou amé bu tuubé la jël jaasem dal ni kenn dotul julléti di laqatu ñepp gën tay di julli président Ousmane Sonko ku yàq ay waxam dang koy defaraat te ñun njabotam ñodul may kenn muy yàq waxam li wax limpide la néna képp ko xamantani da nga manam da nga ñëw pour ne da ngay accompagner nee na wóoruma kenn seetiwuma kenn ndax li ma téye woon ba may ma cinquante quatre pour cent bu ma ko téye am quatre vingt pour cent mu nekk dëgg gu wér te loolu foog naa ne Thione Seck wayoon na ko mu ni bëy li mu juddoo màggee ci di ko dund bu gëmee yàlla mën na ci dund ba keroog muy dee li mu wax leer na naññ mais li mu wax aussi nee na képp koo xamante ni danga doon nekk doon ko saaga di ko wax lu bon doon comploter wala nga yéene koo dee yéene koo dee du liggéey yow tey du liggéey ak suba bata na sawita tëddi kenn bëgg ko ci wetu pros kenn soxlaatu ko fa kase keroog bi Macky Sall fommee élection yi daa fecc bondeelu mook baayam baayam c'est le plus grand traître des traîtres des monde Jean-Paul Dias ay ay état rek ci lay dund ci lay dund kii de moo leen të l'enfant béni pros nee na leen de way bas cuun boobu c'est pas les marabouts léegi daal ñun li nu war a xeex. mooy hmm. këpp ku bokkoon ci régime mu Macky Sall bureau boo mun di voté nan la nan la fa fexee toroxal battre la ba nga tey taxa idal Amidou Ba moom du gagné parcelle moom c'est sûr et certain. non euh, ci la bokk Diouf Sarr. day am ci sàcc milliards yi ci la bokk. non prof xam na loolu Amadou Ba xam na loolu tey Amadou Ba bu politique mais nous savons tous que l'intérêt des Sénégalais ne l'intéresse pas pour la seule et simple raison que ni Amadou Ba a occupé les places les plus importantes sous le régime de Macky Sall Amadou Ba est l'ex premier ministre de Macky Sall kase Amadou Ba a été ministre des finances sans compter occupé

mais yow nga ñew yow nga ni yow man sama chef <laughs> mak ko ëppoon salaire amadou ba amadou mbaxal ba bay bo naka jabaram mbaxal lu mu lu man mën mbaxal yaboy nee la bëgg na soxna si di mbaxal midi di mbaxal matin di mbaxal soir fa da xam ni waxtu bi yegsi na ba pare yow amadou ba fi am keur rek presque mo kin kin fat place da koy dox fi mu am kam ya, yàkkamtuñu sax kasse en tout cas ñi ngi delu dal di wax ni sunu gaay kasse en tout cas gënal nga dal ga dalal sa xel yeen ak suñu mbokk modu modu yeen ngeen xamantani yeen nek ci kaw il faut que sachiez que il faut que sachiez que bala 6 heures ne leen jox résultat europe yépp ñun mom paré na man kay bul sonu man kay bul sonu lolu mom mo am ma ci xel ñaar mais xam leen ni aussi ngeen baal ma dem fajar teel ñu dem ci indi ñom ñep lañu téggal seen day doomi xaram waay déet waay kase déet waay kase kase bul saaga sa sa yaay sa yaay sa sa papa yaa ngi lay seetaan sunu maam yi kase bul saaga bul xoro <laughs> xaaral ma doo jëli wasima vite fait mu ñëw ah ma ñëw ma ñëw ci peeru laar balaa muy dem wasima nuyu na la wasima mortaala mort waa mortaala dem na donc mama mama binta yaay boy fonala nga ñew ma te perle ndeysaan bala muy liggéey fonala yaay boy maa la dàq foon dama duggal ñu wacce ma ma toogaat <laughs> wacce waan nañ ma gis nga naam waaw la ba sama yaay ma ngi lay nuyu waaw man ko ma wàcce waat allo alo maa ngi yaay maa ngi lay dégg. dafa mel ne damaa nekkul ci ligne bi de. man mii moo ma jàpp ma téléphone bi la man mii moo ma yem de. père na laa gis ci kaw te pourtant maa ngi lay dégg mais wax kon kon baax na comme yaa ngi may dégg rek baax na ba yaa ngi am jàmm. maa ngi am jàmm bu wér yaay maa ngi lay ziar. na la jàmm sonal doom na la jàmm sonal doom yaa nii ci kaw. gis nga maay noonu di gis sama sonko moom. maa la wax loolu. yaay boo sama mu sell bu baax mu gën nii nga yëg ci live bi yaay. maa la gën a ko maa la gën a kontaan doomu jàmbur yow foo ne rek maa nga fa. ndeysaan gis naa damaa yéeg ñu wàccee ma ma dellu si waat bi ngi noonu. téléphone bi la de yaay bu la dara métti sama téléphone bee dox. dëgg yàlla xam na fi mu toll nii sama téléphone bi daal fi mu toll nii yaay mooy def la ka saf nii te kenn mënu ci dara. dafa sonn dafa sonn. maa la wax loolu. waaw man de man de dafa dafa am information bu ma dégg moom laa joxe nee nañu bat nee na jour vote yi nañu saccage bureau yi surtout Dakar nee na moom daal Dakar ko gën a intéressé nee naa yaay nee na nañu saccage bureau yi fay na ay euh, journaliste sa pour ñu defal ko fausse information la xaw ma man ko nekk na sawitu tëddi yabat ñun duñu não fa como pare fekk nañu né, pare waaw nekk nañu não pare não tey soog a não. xam nga moom loolu bu koy def mama jamono ji renseignement généraux yi jigi fi nga live bii nga gis nii am nay renseignement généraux yi nekk ci toog di ci seetaan yaay seetaan moo yaay moo sénégalais ku yóbbu ku yóbbu na dalal sa xel ku yóbbu na nga hmm? tëdd nga nelaw xam nga sànq ñi nga tase woon ci live hmm? euh, Afia nga déggee homme de tenue bi doon wasima xaaral wasima tëj leen effectivement xaaral ma tëj xam nga sànq yaay booy bi ñu nekkee ci euh, live Afia y a de tenue bu ñu ñun. waaw dañ doon dañoo demoon doon xeexal suñu réew. mais léegi dañu dellusiwaat ñëw xeexal suñu réew ci beneen mhm. fànn maanaam protéger suñu ay doomu réew loolu maa ngi yow ñoo ko déggal. gis nga Kër Massar dama lay jox benn anecdote rek pour nit ñi gën a mën a comprendre il fut des temps agression bi daf fi bëri woon. tout le temps dañ doon agressé agressé di agressé benn jour capitaine projet Mohamed Bilal Diatta suma. frère sama kilifa googu ma koy nuyu di ko jox cër ak wàccuwaayam mu nekk ndaw bu ma faama dafa taxaw biir Kër Massar biir Kër Massar la taxaw mu ni gars yi eh yéen agresseurs yi yéen laay wax agression bi jeex mm-hmm. depuis boobu ba léegi déggatoo Kër Massar ñu ni ñu ngi agressé ndax renseignement généraux yi ñoo téye réew mi gis ci lépp lu ñu mën a wax ma maa xëy na jamonoy Macky Sall am na ci yéen yoo xamante ni nañ ci ay piège mais lépp lu ñu mën a xam war nañu xam ne suñu armée bi am na ci ñoo xamante ni pare na récupérer waat seen place maanaam ci euh, réew mi doxal réew mi ci na mu waree Barta yaay xam nga sama yaay daf may faral di wax ne ma mhm. picc bu loo jiiñ mu xet Barta ko xool ak ni muy jëfee xam ni dafa rëpp te presque xamal na ko ni ko tactique bu dul rëcc yaay booy jar bi yàq nelaw leen daal mooy kan yi ñi nga xamante ni ñoo pare tay la seen bopp nangeen xam ni mhm. après le 17 bu passé mhm. beneen Sénégal lay tegu parole de Nass Khalifa yéen ñi Barthe Faye yéen ñi yi fay ba ngeen ni pare ngeen pour def jëf yu ñaaw yooyu yéen a ngoogu suñu homme de tenue noonu ñun xulóowu mhm. xeexuñu yàqateewuñu suñu réew reyateewuñu dañuy voté yi incha allahu rabbi ci fulla ak fayda jox majorité bi incha allahu rabbi président Ousmane Sonko bu sell bu lëndee nag walla yéen di ngeen xam ne se pas les marabout sédia yaay ku yóbbu tëdd nelaw baa du ma doxee baa ma doxee ba ba kër Masaar fekk la fa lépp nga ba rek ba maytul man ma daw si ba ma daw si ba aslem déedéet bàyyi ma daw ñëw rek ndax doo tal kenn bu boobaa ndam rek pourtant xoolal pourtant li may déglu loolu yéen maa ngi naan leen dem leen sawi te tëdd fii moom Sénégal moom ku ko nar a yàqu ñu yàq la mu ngeen pare pare nañ lu bëri suñu doom yëpp ngi takku taxaw sànq suñu xale góor yi naan kii day fen kii day sóob kii nañoo ac leen mën na leen yéen takku leen rek takku leen rek dara du am dara du xew incha allah rabbi maman Wilber Wilber waa Père Fassie. da ngay déglu muy wax. waaw. seetlu nga ne kooku est-ce que dafa lucide woon ba muy wax noonu lucide maanaam xool nga kanam bi est-ce que lucide. dëgg la de ñun daal ñu ngi noonu rek. Père dama yore réplique di jaaxaan xam nga gaar boobu di jaaxaan. dëgg la. moom day mandi ba pare. waaw sa bopp da ngay tooyal. voilà moom mooy moom mooy Barthélemy Barthélemy comme ni ma waxee moom ci ñoom la yaakaar du ci ay garde corps am moom da koy jug def ko. Mhm. Mhm. ñun ñun ñaa ñun Sénégalais ñoo jëm importance Barth importance bi nga xam ne moom yeggu fa. Mhm. parce que wax dëgg yàlla Barth jarul tiital kenn ana suñu police ana suñu gendarme. waaw Barth xalifa ma tiituma wala tiituma. yaay booy. xam nga bu fekkee ni bu ah. fekkee ni bu fekkee ni Macky Sall. Mm-hmm. Mm. moo woon armée mm. yor police yor gendarmerie. billaay tëj président Ousmane Sonko mu sell mi. président Ousmane Sonko mu sell mi. bu xëy suba ni élection amatul. waaye Barth doyul xolam doyul gàllankoor mu sell mi xam na ko sax. billaahi sax wuyuwul. ak ma ne ko wóyul. waaw jaam doomu jaam amal jaam maa ngi bàyyi ñeneen ñi yeeg. waaw foon naa la ñeneen ñi dugg maa ngi déglu. man foon bu pata pata pata. amal jaam yaa ñëpp nag yaa ñëpp incha allah. damay ñëw daw jël si léegi. jërëjëf jërëjëf parce que naan fi mu nekk guddi dafa war a liggéey waaw après ba ñëw ci yéen. dëgg la ngi ñëw Touba xoola may mayma mayma ma one minute rek ah ma bàyyi sama sœur bi mu jeexal après ma ñew ci yow nga dugg ñu gëna waxtaan parce que moom. jëlal jëlal Touba mu wax tuuti. waaw d' ay eh, Touba kon yexi néna nga yexi wa di len nuyu man ñoy wa première wa wa wa wa première bawal Mbacké. ñu yegsi première bi xëccu ko kenn waxon na len ko neena len leen ñu ñoo jël premier te moom le <laughs> 17 ngeen ji gëna xam dara sax waaye wax mo loolu doon ngeen ñu mais nag door ngeen ñu door yu man démb ma gisee seen mobilisation dama rus ah gis nga ko waaye nak tay jii de moom tiit naa parce que pro mer na tay déglu len ko legi legi ni deglu na ko mais mer na trop parce que li am dar mom metti nako te même annulé na sax annulé na sax yu mu waroon dem neena mom kenn du fi campagne ti parce que lii moom duñ ko bàyyi mu jàll dal na ci ministre intérieur woo na ko nee ko nag lii moom na dakk tey tey tey tey lay jeex parce que lay am ndar dafa métti de man léegi laa ko seetaan mais ñi jam fa ni ay nit ba ñu ba ñu gaañu yenn yi lii moom vraiment daal waaye nag te xam naa ne dana réglé wu ndax pro mu mer na tey moom mer na bu loolu jàllee itam nag ngeen jéem a xëccoo waa waa yéen sax nu ngeen mujjee waa géej waaye maanaam mujj leen leen mujj ngeen leen baal wala nu mu demee noonu Kër Moussa ah, Guédiawaye ñu mujjee seen seen bi ñi ñii waa Kër Moussa yéen ñii la bëgg lu yomb da ngeen war a bàyyi waa Guédiawaye dem parce que yéen moom wane woon ngeen seen bopp yéen ak waa <laughs> ACAPES yéen moom wane woon ngeen seen bopp da ngeen war a may waa Guédiawaye nag ñu ñu ñu wane seen bopp ba ñu xool. ndeysaan en tout cas lépp ci fi toll nii mais nag euh, d'après li ma comprendre sànq parce que on était avec euh, caravane département département bi ils étaient en train de def discours afin que. ñu def euh, tëjee tëjee kii bi la vendredi bi ci terrain ak APES mais foog naa ne pos suba la fi waroon a ñëw. bu fekkee suba du ñëw de du ñëw. yaa ngi naan dafa changé dafa. kii bi buntu kër Barthélemy lay defee. am na yu annulé am na yu mu annulé waroon na demaat daal ci sud bi waaye. waroon na demaat am na yu mu annulé parce que nee na moom suba moom nee na moom fi mu toll nii demut fenn te li mooy lii mën a tutawee. non en tout a tutawee moom en tout cas y a chose mooy li ñu doon wax sànq hmm. xam nga Touba gisoon nañ keroog euh, ci Koungheul hmm. nga xamante ni dañu hmm. attaqué le président Ousmane Sonko ñu limogé ñaari gendarme ba ma am sax ma doon tooñ ci groupe WhatsApp ma mu naan bi info bi mu ni ma mu bind ni qu'est-ce qu'il a fait ma que ils ont négligé le premier ministre de ce pays. cela vous suffit comme réponse gars yi foog njëriñ. ragal naa ragal intérieur dana wacc tey parce que mom nee na ministre ministère intérieur bi nee na moom ko te nee na ko te nee li lii fenn parce que nit ki bi campagne nga di dog di agressé tegewul fenn te depuis nee bob ak léegi yag na ñet trois fois def na fi te amul ben arrestation amul dara lolou xamuko ko. non non tey yaakaar nguuru Sénégal ñu ne def deful sax non dina mer c'est que c'est xam nga y a une chose li tax pros du ko mën a baale te dañ koy e comprendre ñun ñëpp bu kenn nii dafa nekk nitu mm. fitna il y a eu des enfants qui ont été sauvagement abattus ñëpp di ko gis. tey waxuma dara waaye dafa mer ba tudd tur. tur waa ji baayam nee na ko sa même baayam nee na ko sa baay baayam lu ne yàq na ma ko fii 15 ans yi lu ne yàq na ma ko ma muñ bàyyi noonu mais bu fekkee baayam da koo yorut itam. dina xam ne lii moom day dakk day tax dina dakk. non non c'est trop c'est trop déjà man j'en suis sûr que ni. j'en suis sûr que ni suis sûr non seulement premier maanaam ministre de l'intérieur dina jël ay responsabilités mais dama ne non fi mu xam nga procès rek la gars yi di mu wax ci kaw. mais ce qui est sûr et certain son excellence monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ni woon réew bi bu muy yëngu def la ñuy ci jàmm du bàyyi mbir yi mu sedd trop c'est trop déedéet du ko bàyyi lii moom moom moom trop non trop c'est nag moom Barth xam nga Barth problème am mooy li may wax rek picc bu reppee ci xare lu mu ji Barth gis nga li ma leen di wax dafa réew Bartha day perte maire de Dakar wax leen benn. Bartha dafa réew ci mais kan. Mhm. dafa defoon détournement d'argent. looloo taxoon Macky na ko léegi wax na ko léegi. looloo tax déglu ma fii. looloo taxoon Macky mhm. am ko téye ko di par force. dafa def détournement mhm. d'argent yemu ci. dafa sàcc xaalis détournement wax na ci benn kër. xoolal xam nga man seetaanu guma xam nga man seetaanu guma discours président Ousmane Sonko pour wax la ne man ñun. dañuy doxantoo yoo xam ne ko téye toog maanaam danaa la bu ci wax fi lekk dossier Barth ubbeegul dafa am benn kër goo xamante ni côté côté boulangerie jaune. non yow Barth li mu ngi xam ñu pro dafa mer ba lépp la wax. xam nga sànq dugg naa sànq seen live dugg naa ne la Sénégal dafa bëri fumisterie Sénégal dafa bëri fumisterie moom lépp la pro wax. xamuñu xamuñu xamuñu ku tooñ ku fayu la ñu xam fayu la ñu xam pro bu waxee rek ñu commencé ku nekk parce que pro dafa wax rek ma dem Facebook nga gis ku chroniqueur yëpp mhm. commencé di bind di di di di naan non d'accord ñu ak discours on s'en fout bi ñu bàyyi moom ak Assane Diouf xam nga nee na dafa wax tey dafa cité ba cité même turu Assane Diouf bi fi Macky Sall parce que Assane moo doon def loolu moo doon ñu ñu jël nguur gi ñu jàpp di ñu gor boy mais boo leen gisee ni ñu daggee loxo xale bi dafa yéeme ndax lan Sonko laa wax mais lii le ministre daf koy mën a régler mënul mu démissionner mu dem ñu wuti keneen trop c'est trop. en tout cas boo moytuwul kan kan boo moytuwul dans les plus brefs délais di nga dégg ñu saa waa ji wàcc nañ ko soit place te moom lii mu def. gis nga gis waa ji gis nga waa ji le matin may waajooju nekk si ñoom Yirim sekk le matin bu mu dem ne waaw nguur gi ku leen moytuwul dinañ posone ñëpp. waaw wuy ma gis nga kan kan na gis nga là-dessus aussi rassure toi parce que man mais non man gis nga Guro daf koo wax nee na état bi dafa faillir ñun dañoo faillir wax na ko ñun nee na côté boobu dañ cee faillir parce que lii ñuy wax nii sécurité dëkk bi la sécurité dëkk bi la parce que mënuñoo toog ah, di accuser indirectement les gens mais loolu moom ministère intérieur la ko wax noonu parce que kenn dee na ku nekk si état bi ñoom ñi ngi ñi ngi ñi ngi mën a commencé def ci xelu nit comme quoi que euh, gouvernement bi fi non mais non mais non mais mais mais mais kan xam nañ mais, nit ñi waxé kan kan kan xol kan kan mais, dal rek ñu ci dal ki ki nga ministre des finances mais, rapport mais, épingler concernant rapport Prodac mais, may wala mais, ñi mais, dañuy dem dañ ci état nan def autopsie xam nga tey il faut nga xam ni parce que Sénégal dafa am ñu jàng kan am ñu jàngul am ñu xamul ñeneen ñi la ñuy jéem a lëndëmal seen xel yi. non mais kaay non mais kaay ma wax ku ñu lëndëmal xolam wala xelam kenn ñun ñooy dal ñun ñooy muñ xam nga sànq yaa ngi koy wax ci biir laay. gis nga la waaye moom moom mënuñu ànd ak dal kan kan que li ñu def nii kan kan. kan xolal kan xolal il faut que ñun ñëpp d'accord metti na mais il faut que ñun ñëpp aussi ñuy dal waxtaan ci kaw dal parce que fekkee dafa ay nit yoo xamante dañuy suivre il faut que ñu tegee discussion foo xamante ni ñoom dinañ war a mën a comprendre fii Sénégal ay mala yeewoo ñu fi ay nit ñoo fi yeewoo ñu yore xal tey ministre ministre des finances boo xamante ni sa tur dañ ko tudd ci njuuj njaaj état bi yow nga dund moo doon ëpp njëriñ ci ñoom parce que bu la woowee di nga ne diw fii laa ko jaare diw fii laa ko jaare kon deewam kan la gën a profité sénégalais xam nañ ko bu baax parce que la preuve aanee ko fii nag ci ministre boobu lañ gisee ah ku génn àdduna nit ñi dugg ci biir TikTok naan ko waroo woon dee yow na nga waroon leeram tey ah dee du jaas fépp lay dugg ñu koy jaale ay jabootam tey dañ dem ba état bi dafa nii nan def benn autopsie bi ñu xëyee suba ñëpp wax nañ ko. ki jóg ni defal leen ma autopsie ci nit ki nga xam ne dafa génn aada na ñu xam yan cause la demee du ñooñu tey ñoo xam loo xamante dañ koy nëpp donc s'il vous plaît tey man mën naa comprendre un peu seen inquiétude ok gis ngeen ay vidéo yoo xamante ni ëpp na ok kan xolam yëngu na parce que Sonko sore na ci man heureusement que taalu gu ma télé pour di seetaan discours président Ousmane Sonko xëy na kon doon ma nekk kii dal di yore lii mais il faut que ni lii par A ou par B par force gars yi dañ koy régler ce ministre de l'intérieur nag encore une fois qu'il prenne ses responsabilités car la sécurité des sénégalais y moom lañ dénk kaaraange réew mi dénkuñu ko benn naas xalifa moom lañ dénk kaaraange réew mi moom moo war a téye kaaraange ni ñu war a jugee jël ay gendarme ñu saytu kaaraange président de la république kaaraange président Ousmane Sonko bu sell bi gën bi noonu dama ne la ba ki gëna a tuuti ci sénégal yi mu garde manam mu baamu nako ay yoon yoon baamu nako ay yoon yoon tay de baamu nako ay yoon yoon tay mom xamna naa non mom moom fi mu toll ñun ñoo tok fi dal de waye leer na ma ne fa mu ministre de l'intérieur bi mom du daaw hmm. parce que munoo toog munoo toog ca fële ca Koungheul ñu ciblé fa ay nit il a fallu que état bi doute la baram ka dàq ñaar gendarme nga dellusiwaat ñu attaque ay xale fii ci cortège u Abass Fall ngay gis réagir loo trop c'est trop man dama gëm ni li Cheikh Omar Touré journaliste boobu waxoon rek moo fi nekk président Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye Diakhar fay li ñu woote moom wëlbatu ki seen kaw xam nga mooy lan jub jubal jubbanti da ngay toog nga ni da ngay tolérance dafa am fu muy yem

am na koo xamante ne da ngay nopp bi mu xalan ko fële muy soog a dégg am na koo xamante ni fii ngay jël sàdde ko ba mu saw muy soog a dégg il faut que ñoom oh, ñoom ñu teel koo xam war koo mën a comprendre qu'importe tey yéena ngi fi non mais Touba tey ñoom ñi ngi fi di woote rupture tey la leen gën a xas àdduna boo ah. il faut nga toll foo xamante ni da ngay boole ki lay tagg ak ki lay gërëm teg fële xamal yalla xamal jub xamal na yalla xam yaay kan na yalla xam lan la mo nek sa bir xol bi mais li nit ñi di xalaat dang koy jël nga tek romb ko anyway ga ci paas parce que keneen am nañ ñom yalla naas khalifa bi tok naan Touba ya fi geut ya man naas khalifa boobu mo meuna gennat suba tok na la tekki wo dara nit ku bon ka waaw il faut que loolu ñu koo xam ñun ñep ainsi que suñu ay dirigeants man nag tey duma fi toog wax dëgg yàlla di tàkk parce que ku dugg ci laaj bi man maa la war man dalal mais kan xam naa ni mer nga mais il faut aussi nga retrouver say esprit il faut nga dal il faut que ñu dal apaisement tey ñun moom la ñuy mën a wax en espérant aussi que nag le ministre de l' intérieur que di nga jël sa ay responsabilité boo ko defulee commandant yi nekk ci biir réew bi mais jël la seen ay responsabilité na commandant yi jël seen ay responsabilité ñu def ko ñun ñëpp tey ñoom seen ay njaboot la dana lijjanti ko parce que tey moom li wëtti wër mooy dégal ba déglu pro rek boo ko da nga xam dana lijjanti ko léegi incha allah waa d' accord suba xaaral ma bàyyi perle mu tàggoo nee day dem suba perle ñi ngi lay bàyyi nga tàggoo looy perle sama xol dafa dafa dafa euh, am na jaru ko na politique jaru bilaay mm-hmm. kon nu duggee wax nii sama xol dafa dafa yi jaru ko mm-hmm. ñëpp ñoo bokk Sénégal non non gars yi gars yi perle dinañ leen régler la justice va devoir prendre les mesures qui vont avec perle gis na Macky genre politique bi la fi bàyyi mm-hmm. loo xam sa morom waxal ko waxal bàyyi ñu am bi nga xam ne moom tey waa APR ku ci deele sax dama lay ne ñaw wala waa ku ci deele sax ma ne la ñaw te bu njëkk ba Sénégal am ko woon nit day deele sax quel soit parti politique bi ngeen bokk mais da ngay ñëw nga dem jaale ko ne ko massa loolu la Sénégal am waaye léegi tey pour sa pour say erreur wala yow pour sa donkaas bi tu te yow nga rek pour rek tey man man billahi dama yéemu parce que man musuma xalat man mhm. man dama koy jële manam catholique bu melni ni Barthélemy Dia en fait Barth Barth dafa jaay amam man lool lay wax parce que ñun ku ñu xam xam ni ci dëgg xam ni ci vérité xam ki xam ni ci djub xam ni ci lepp mais Barth billahi Barth du nit ku baax mhm. Barth du nit ku baax te politique ku mu jaral li wóor yalla yàlla yalla di juger yow ak mom kessé bi nga xam nak yow xaalis jaranoon la la yéen nii yooyu yow politique dafay man dama dem sa ba xaw ma leen kii dafa dugg wax li sama sama xol neexatul du parce que man man man mi aw ma benn mbokk bu bu ma deele ci ci ci maanaam ci affaire événement yi fi jotoon am yëpp aw ma ci benn mbokk bu ci mais quand même sénégalais la nit la ba borom bakkan la yaa ngi gis ñu koy nakarlu encore les choses se répètent ñun ñu dem ñu nekk tey ci nguur gi Ousmane Sonko ñoom nekk ci nguur gi mais jël seen sécurité bu doy ki nga xam ne yow mbooloo mu bëri daf lay top mbooloo mu bëri foo nee nit Sénégal ñëpp jug mais Sonko moomu jaral nañ ko ñu utal ko sécurité bu doy patriote yi kenn du fi parce que Sonko lu mu leen digal rek lay def la ñuy def di attaquer attaqué kenn mais tay Ousmane Sonko bu non patriote yi attaqué ni attaquer attaqué mais kon tay dekk bi tay mu neex comme ñu ko tuddee tay mu neex ñep ñu ay rayante dina fa am mais ñun ci ci wéer ci digël rek lañuy ñuy bu len attaquer bu len def dara mais minimum Sonko bu genn warna am ñu ak sécurité bu doy parce que Sonko bu won ak bii dafa utee ba ñu siy ñàkk ah. seen bo waxé waxee de bu waxee de Père Lola bu dee pros moo mer ba wax mooy que ni xam nga sànq am na ku dugg ci biir euh, live bi daal ni gas sa gas a yeewuwaat na bu dee pros te xam nga gis nga euh, gars yi li dul xam mooy que ni euh, gaynde kenn du ko yee. te te naa si xam nga lu ma. gaynde may gis nga kilifa diine kenn du wax. mais hmm. xaaral ba Ousmane Sonko jël décision. ku nek nga nek fi di nan yow ak li yow ak la ku nek di nan Ousmane Sonko Ousmane Sonko gis nga deug man rew mi ñun ñoo nek ci rew mi nga xamne ne jeune wax ko deug yi magi di di di di di man ma sax comprendre en ñu ñun Sénégal ñun lan lañu bëgg en fait parce que bu ñëk ba amna yi nga xamne do ko def parce que mag ngi mag bi mo lay diriger mo lay wax li defal li defal li moy wax deug mais léegi c'est le contraire xalé sax moy ne mag defal li kon ñun fa lañu jëm yéenante lu bon yéenante non non li, quand même li du politique li haine la haine en fait haine. haine la si haine la gars yi nak yi nag vous avez y a trouvé le mot juste nag. Ousmane Sonko lan la def nit ki nga koy fenal fenal fenal fenal fenal yow moom Ousmane Sonko amul ci en en, yéen yaa leen ki pour kii kii retourner amaat ci moom haine di gando mu jàmbur yi ñu ko ba nit ñi di mm. seen des fois. Mm. en tout cas war nañoo xoolaat suñu bopp war nañoo xoolaat suñuy taxawaay ñun sénégalais nit da ngay bëgg sa réew bëgg sa doomu réew sonko tey yu ivoirien yi wala mali wala ñeneen bu ñu amoon ku mel ni sonko billaay wala ñu tee ko fukki loxo ak juróom parce que ñoom loolu moo tax ñuy acharné wu ci ñun ay mali ay affaire yooyu parce dañoo yaakaar ne sonko lii ak lii bu jëlee dina leen jàppale parce que xam nañ ne genre boobu rek la ñu mën a am seen dëkk pour mu xeexal leen mais ñun ñu am ku melni Sonko tay fu ñu jug di fen diko ko fenal fu ñu jug di fenal da ngay dem sa ba yéene ko dee mais à la fin ñun ñooy kan. Mhm. waaye man fii laa mu parce que xam naa bu suba. waaw d'accord en tout cas Perle euh, ce fut un plaisir vraiment tey laa Monsieur a partage ak yow waaye damay wax desaan macha allah dès lors je sais que vous avez le cœur un peu lourd, mais sont les réalités, hein? waaw xëy na nag li mbir di waaj a jeex moo parce que xamna ni lepp luy waaj a jeex ci kaw souf rek manam day am lu bindo je dis je me dis que ni Barth est en train d'écrire les dernières euh, pages de sa vie hein, qui sur euh, libre ni la wax en quelque sorte qui vit ci liberté mais quelque soit Alpha avec ce discours qu'a tenu le PM présence Sonko bi seen week-end bi nous savons tous que ni li gars yi def ne restera pas impuni xam nga sànq bu ma lay wax perle ni la gaynde kenn du koy yee dañuy fàttali ni lion tout le temps mat de lion la ñuy wax day am njabootam ci ginnaaw te président Ousmane Sonko bi seen li mi gën bi nag ah gars yi na ku nekk ku nekk pros njaboote na ko xuyaan ci ku dégg séeréer te Sénégal gi la ma si jaa waxoon ndeysaan keroog bi gars yi attaqué waa bi ma génnee di wax di jooy dafa ne ma jigéen ma nekk naa mu ne ma fobbal sa rongoñ da nga toog lii dinañ ko réglé ba mu réglé wu. Casamance dinañ da lijjanti dinañ lijjanti ñi def te yéen doo leen ko te foog naa depuis boobu ba léegi Casamance yëngatuwaatul mais gis nga lii gars yi dinañ ko réglé en espérant rek ma li may ñaan mooy que ni ministre de l' intérieur dina ci def li ci war. balaa njabootu président Ousmane Sonko bi seen bi gën bi commencé fajal seen bopp. sa du tere élection par force day am. te du tere par force la ñuy jox majorité bi président Ousmane Sonko bu seen bi gën door leen ci biti nag door leen ci urne yi am na lu ko gën yaxa na leen seen yaram ngir yàlla ak rasul yi da leen koy ñaan nekk leen ay nit ngeen xam ne doo leen ay mala benn leader politique jaralu fi kenn liberté kenn sama bopp ma la gënal du pañ naa la ñii ngeen gis ni ñu nekk di génn di rey seen bopp kenn fay ñu dërëm ce que nous faisons

yéen a ngi woon naar nag ci guuxu soow waaye yéen la rek bu ma nee yéen nag mooy ndaw yooyu nga xamante ni da ngeen toog ngeen ni yéen tekkiwu leen dara yéen daal seen doq yi ngeen xamante ni ñooy yàgg assisté defet defet yu daayoo yu daawaati jéggee defetu maam yi yéen daal yéen a ko assisté puusu leen paasu leen nee ngeen ba fi ngeen ko téye foofu la kal ngeen ko fu neex bu leen teggi tànk yéen a ngi noonu xale yaa ngi noonu man nag li may ñaan man personnellement mooy que ni le ministre de dinañ ci dellu ci war ñoom buñ ko deful dama ne la armée bi y a des commandements ñu ci ñu bëri ñoo xamante ne tey dafa ay nit yu topp seen dinaa xam tey lépp loo leen bëgg a xam da ngeen ko parce que nous savons tous que ni gendarmerie Sénégal bokk na ci gendarme yi nga xamante ni ñoo gën a duwee lépp loo xamante ne tey dafa jëm ci piste wala enquête pour jàpp nit donc en espérant que man de loolu laay ñàpp que ni ñoom da ci war dinañ jël. dem jafe ko ci kaw fulla ak fayda ñëw wan Sénégalais yi ni ñii ñooy nit yu tekkul dara ñii ñooy lâche yi ñu jël leen yóbbu leen te s'il vous nag ngir yàlla ak yonent bi ñu def jëf yooyu bu leen kenn sànni Dakar gii yóbbu leen ba ci àll Tamba ga fële il est grand temps son excellence monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dem ca àll Tamba ba fa jiit ya gën a bëree defal leen fa prison bu ne yàmbalang nit yu bon yi yóbbu leen fa sànni leen comme que yéen ne ngeen bugg leen bokk ci ci maanaam ci Sénégalais yu baax yi yéen da ngeen waat rek ni yéen ña maam yi toppoon rek yéen ah di def kuubaa yéen a xanaa sax doom dina toog benn instant tuub xanaa nit dina dem benn instant mu ne noonu man kat ko dëgg yàlla lii laa yàgg xam waaye mbaax ngeen ni waaye kaay baax ngeen ni njabootu iblis ngeen maa ngi ñaan son excellence monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ni mu jëlee ay hectares ci Touba Gueye pare def ko usine am boo ko xamante ne ci leen def voiture militaire ba di ci jël ay nit na xàll ca àll Tamba ja ci digg àll ba. fa gaynde yi bëri ak tëll na leen fa xaalal foofu nga xamante ni ku tëb bu gaynde dajee ci yow faal daa di xewul ndax xewul maam yàlla fépp lay génne boo tebee jaar ci benn roq yi la bukki yi jàppee da nga ne bu gaynde jàpp ma jeexal ak moo gën a yomb nit yu bon yooyu na leen yëpp foofu Barça moom on le voit ba mu des Dakar na génn Dakar rek ilaa Tamba waaw xëy na bu demee foofu dem toog fa benn at ñaar ñett xëy na du tere mu nekk nit waaw te boobaa jiit ya nga xamante ni foofu noonu ay jiitu patriote la nan génn rek

amiin yal na la yàlla di leen ziar di leen jox sa wàccuwaay. di la jaajëfal lu bare bari bari soxna si xam nga di la di la yokk courage di la yokk doole ñëpp xam nañ ne li ngay def ni jafewul parce que jafe na trop trop trop parce que gënoon na fee métti nga xamante ne bu ñu xàmmee sa kanam rek nga nekk fi patriote wax fi benn yoon ñaareel rek ñu jël si la jàpp wala ñu jàpp la fi sonal la fi teg la yoo xamante ne sa waay dafa métti kon dafa mel ni ñu mel ni yéen dañ leen war tous les jours di leen delloo njukkal di leen ñaan di leen dénk yàlla di leen dénk yeneen def sala parce que gënoon na fi mais la parce que àdduna moo toll foo xamante ne tey deux mille vingt quatre lañ nekk bu la neexoon tey nekk ci mbiru jigéen ñi gis nañ fi tiktok bi ni muy doxee gis nañ fi ñeneen ak ñeneen mais yaa taxaw chaque jour taxaw tem tax sa ndig di xeexal sa réew kon chaque jour xam nga man dama lay rendre hommage di la jaajëfal di la. voilà di la yokk parce que c'est pas facile parce que mënoon nga ragal tam xam nga ne xaaral fi eh ku fi wax man ma ngi ni ay at ma ngi fi mais saa yi ma jëndee billet na dama dem sama yaay na ma do dem ndax yow mo fim mu nekk nii mu ma yow ni nga ni nga ni nga mel ci euh, euh, parti bi fi boy dem Sénégal dinañ la japp wala dinañ la manako ma ne ko billahi rek ma fomu format fomm format batay mi ngi ni ñent at ak ni nii sama tank Sénégal billahi mais sauf que nit yi dañoo war a xamante ne xeex bi fi mu commencé nit fi fàtte xaju fi de te patriotes yi dañoo taxaw jàmmaarloo ak tout un peuple ak toute une armée tout un état malfaiteur système boo xamante ne dañ fi teg depuis mille neuf cent soixante patriotes yi ñoom muy métti xol yi tooy nit yi jooy nit yi dee gis nga nag soo bëggee xeex ak koo xamante ne par exemple kooku au fait il a plus rien à parce que au fait mm-hmm. xam nga da ngay dem ba koo xamante ne sa waay kooku yëg-yëgam maanaam chaque jour am na picc mais dañuy fàtte ne ñun xol yi dafa toj sunu xol yi dafa toj te ku xolom toj nag boo koy wut muy daw boo koy wut muy daw ba benn jour bu jàkkaarloog yow bu yeboo nga daw wuti parce que buñ fàttee ni fi xew yëpp rey nañ fi sunuy doom ñu jooy noppi man maa ngi fàttaliku sama guddi ga ba Guy Marius Sagna laxasoo Ousmane Sonko guddi googu li ma li ma jooy musuma koo jooy sama àdduna jour boobu noonu su ma fekkoon Sénégal <laughs> man amaana sax tey du ma dund ma tëdd fii bëgg taabal dañoo war a xamante ne loolu yëpp dund nañ ko fi sunu xol yi tooy ñu jooy noppi fëgg taabal yi noppi muñ noppi ñun ñoo nekkoon fii ku fi takk bracelet ñu jàpp la duma la toroxal la ñun ñoo fi nekkoon di gis dëgg ñu ne na kilifa génn diine wax ñëpp noppi suñu xol yi du tàng mënuñu si dara ñun ñoo fi toogoon ñu jàpp ko ko ne doomam du génn jabaram du génn lekkuñu ñu nekk fi naan lekkuñu naan nañu suñu xol yi tooy ñu muñ ko noppi ñun ñoo fi nekkoon ñu posone fi Ousmane Sonko ñu yóbbu hôpital ñu naan mi si diggante dund ak dee ñun ñoo fi nekkoon suñuy doom xeex Casamance def ay barrière gaañ ay taw munuñu si dara ñu toog muñ ko ñun ñoo fi nekkoon ñu jiiñ fi Ousmane sonk lu nekk suñu xol yi tàng ñu muñ ko ñu koy jiiñ xale bu ndaw taxaw di télé di dem di tudd bay tudd yoo xamante ne si kilifa koo xamante ne ñu bëree ko gëm ñu muñ loolu yëpp ñu xamante ne nag suñu xol accepté na accepté accepté accepté accepté ba ñu dem nak bu mujjee bi xol yi accepté tul ñu dem ba tay nak bu ñu faté lolu de nañ xamné ñun ñoko fi dundoon té lolu ñu dund nak ku xolam tok nga bu ko top nak diko top diko top diko top bu yabo nak bu la la leeree ne bu retourné nak jàkkaarloog yow bu yabo nga ragal ñi jàkkaarloog ñun nak bëgg a ak ñun ñu def très attention parce que ñi ñu xeexaloon ba waccé lé ñoo leen ëpp doolé fuuf nit boy xeex ak état da nga xeex ak armée di xeex ak xeex ñu am xaalis di xeex ak fi nekkoon par exemple def mille neuf cent ñoom nag bëriwuñu juróom-benn lañ xaw ma juróom-ñaar ak seen amuñu xaalis amuñu armée parce que tey bu ñu retourné nag ne dañuy fayoo dina métti trop si ñoom. dañuy su boobaa nag nit su boobaa nag la ñuy wax naan ndekete patriotes yi nii la ñuy def wala lii wala laa te ñëpp a gis lii. te gisagu ma xaru. xam nga dama def benn vidéo di ko wax gars yi gëmuñu ma nee naa leen ëpp lii bu dakkul di nga gis opposition opposant bu xaru ñoom ci maanaam dañu am seen benn stratégie wu xaru mooy que dañuy def lu ñu saf mais nag ci biir def lu ñu saf googu ndama ngi ci gàcce ngi ci ndax foog naa ni direct patriote kenn ko mën a yëngal da ngay xool live bi tey rek. nga xalaatal ñi ci biti. dañoo war a xamante ne gis nga nit nit mi nga xamante ne tey dafa tàkk kese moo njëkk a tàkk. kan dugg si na tàkk keneen ak keneen tàkk ba dama doon mujj obligé di muté micro yi. dañoo war a xamante ne gis nga nit ku déterminé dara mënu ko dara mënu koo démotiver gis nga man mi damaa dem consulat ba ñu bëggoon ma démotiver de ñu ne ma Toulouse ngay voté xam nga bu nekkoon keneen wala kii danga naan non ma dem lijjanti ba sonn ñu ne ma fa ngay voté man musuma dem Toulouse Toulouse de billaay xoola man xaw ma sax lu ma yóbbu foofu ma dem ñu ne ma Toulouse ngay voté waaye boobu dañoo xamul sama oto laa taal dem ba Toulouse jël sama journée vote ñibbi si waat te bu nekkoon Amérique sax ñu ne ma fa ngay voté billahi jaral tolloon naa foo xamante ne dinaa paas dem voté ci ñibbi si waat. xam nga ni li nga wax ni pour confirmer ko sama trésorier wu mouvement Kédougou la nekkoon ñibbisi na il y a de jours nee na moom day toog ba voté ba pare soo koy delluwaat dem. xam nga ñoom ah, li ñu mënut a comprendre que ñoom da leen di yërëm xam nga tey ah, nii booba il faut que ñu waxata di xam nga tout le monde gars yi dañuy dugg dañ naan mais benn nit da xanaa mooy battre campagne Sénégal lépp Sonko la Sonko la yàlla may loolu léegi nag boo xoolee en quelque sorte rek yow da jël mbir yi nga def ka benn instant rek diine contre iblis mbir yi noonu système bi fi mu toll nii gis nga quand on parle de système c' est quelque chose de très vraiment profond te gis nga lii tout le temps dalay won à quel point mbir yi gën a xóot. gis nga motivation da koy sous-estimé. gis nga tey gis nga naan benn mbir ah tey ay tetu Barthélémy Dias la ñuy gis ah parce que ñoom ñooy nagu sarax bi quelqu'un comme ce fou heureux le fou heureux ah, c'est c' est bu c' est Bougane bi nga xamante ni ah oui je suis rentré sur Barkel nga mel na comme si yow dan la dan la jëlee safara yóbbu la àjjana. loo xamante ne xale bu tudd ko du tiitaroo te ki prince menteur de Pape Djibril Fall boppam gu gudd goo xeetu zulóom yooyu nga xamante ne gëj naa ko gi samay jamonoy maam génn naan la dëkk bi léegi dañuy détaillé ay pendentifs ay personnes faux et usage de boo koy wër wër ko am ci xeet yoo xamante ni gis nga dama ne la am na li sama yaay dafa may benn waxu am solo neen moo xeet mu ne ma naas meen boo koy mu ne ma meen li saa di wax naa ni ween mu ne ma ngeen di ko bañ loolu moom mooy dëkk gis nga gis nga ni buuba ce pays là gis nga Sénégal gii ni buuba waa jub jubal jubbanti ñoo koy redressé ba mu taxaw. te xam nga tey fi nii lenn rek laay sant yàlla nii buuba gars yi dañuy toog rek naan président Ousmane Sonko Sonko fu mu génnee wax rek xam na lu tax te wallahi rabbul kaabati bala dix-sept passé dinañ dugg si fii benn une semaine dinaa def round d'observation ngeen xool li maanaam après mbir yi xew rek man leen xaar ba xam comprendre kenn gars yi dañ naan dañ Sonko ay yéen a umpale pré son excellence monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yéen a ko umpale yéen ñiy calli calli nii soi-disant opposant yi ni yéen pros ngeen di defanteel eh son excellence yàkkamtiwu leen dama ne leen sàcc bu dul yàqi nelaw dama ne la sàcc bu dul rëcc jarta yàq bu nelaw nii bu jarul yàq nelaw jaru ko jarta yàq nelaw wër na yàlla jeunesse bi yeewu nañu gis nga man mi di wax ak yow bala man bala nga xam jeunesse bi yow lañ nga façon de manipulation yu ñuy def ji nga en mm-hmm. fait Sénégal en fait ce qu'ils ont pas compris le peuple est en avance par rapport à certains politiciens ñoom en fait loolu lañ comprendre le peuple est en avance par rapport à certains politiciens parce que ji nga politique boobu ñu doon def man maa ngi fàttaliku ta yi nekké boy. nga xamante ñun sax dañ doon fooyee politique di taxaw ci kaw miir naan bu ngeen ma falee dinañ leen tabaxal ay douze di kii yooyu ji nga yooyu noonu politique yooyu yéen a ngi fàttaliku loolu temps boy. <laughs> xam nga lu ma la wax ñoom ci politique boobu la ñu toll. foog ne waaw ne boobaa loolu Abdoulaye Wade ko fi waxoon. boo ne ma falee dinaa leen wutal machine yoo xamante ne boo nee ceebu jën. waaw ñun taa wala booy xeet dañ doon foowee loolu mais ñoom lu tax ñu ko doon foowee politique boobu dafa amoon boo leen ma falee dinaa leen defal lii boo leen ma falee dinaa leen defal gis nga politique boobu dafa weesu nit yi jeunes yi dañoo yeewu ji nga jeunes yi léegi dañoo dund dundaat daj dee dugg ci gaal yi gis tukki ñenn ñu tukki dem ñëw gis xew extérieur gis nga man maa ngi fàttali ko man deux mille neuf laa ñëw fi yàlla mi ma tiim eh. man may dugg ci politique Babacar ñu ngi lay ziar ñu ngi rek def ay quelques jours rek taxaw yëngal sama bopp ma ne ma ñun ñoo tardé ma ne Sénégal da ngay nekk foofu am 30 ans bu la joxul mburu ndékki doo ndékki fii da ngay gis ko am vingt ans nekk chef d'entreprise nekk chef d' entreprise di gérer par exemple ay portefeuille boo xamante ne ay millions lay nekk ñun boobu ñu ngi am 30 ñi ngi toog ci bopp koñi ñu ngi fubbali ñi ngi ñëw nekk ay gone solo ay flottant nekk ci koñi si ngay xamee ne par exemple Sénégal dafa taate ba yàlla ñëw wàcceel ñu benn nit mu ñëw wax ak ñun yee ñu gis nga xeetu politique bi ñuy def di jaxase ay diine di jaxase par exemple yooyu dafa xew man mii di wax ak yow man dafa am fu ma bokkoon tarixa bu ma bokkoon li may wax nak man la engagé comme li may wax chaque jour man duma inciter à quoi que ce soit à personne man li may wax chaque jour man la dafa am tarixe buma ma Ousmane Sonko dafa yor bop ma yor bop muy réfléchir may réfléchir Ousmane Sonko taxul ma baye de comme ni dinañ naan Ousmane Sonko mo tax nga di def li bu kenn foog Ousmane Sonko tax Ousmane Sonko dafa yar xel yor xel ma gis nga man ma gëna deugër bop ci aduna ma gëna a naqaree convaincre man nit mun nañoo sori wax ak man nga né mo Molière moo ko wax Demba Saba. Ah, nga ne ma Molière moo ko wala Einstein c'est qui Einstein Einstein yor xel di xalaat Molière yor xel di xalaat ma yor sama xel di xalaat nga naan ma Einstein c'est pas parce que da ko wax mooy dëgg man nag dama bëgg a expliquer foofu ne Ousmane Sonko incité wu ma ak ak man yor sama bët xool yore libre arbitre le libre arbitre ku nekk daf ko am ma gis Sénégal nu muy doxee waa ji yor Sénégal yore portefeuille di wax li nga xamante ne mooy dëgg jub jubal kii xam li nga xamante ne mooy génnee Sénégal ci loolu ma nekkoon ak ñi nga xamante ne gëmoon leen ma gis ni par exemple ñii dëgg bi tax par exemple dëgg yàlla moom moom dëgg te diine yàllaa ko moom yàlla dénkul kenn diine ma gis na nag kilifa diine yi ma gëmoon dañoo gis dëgg gëmm si te ni ñuy doxalee man gisuma si équité ma génn si ba ma set wecc maa moomoon sama njëbal ma nanguwaat ko teeku sama bopp man sama bopp laay waxal <laughs> man comme li ma wax chaque jour man lay incité man incité kenn kenn mënu ma incité ci dara. <laughs> après nag ah nii boobaa man nii boobaa bi may faj. nii boobaa nee maa yoroon sama jébal <laughs> ma nanguwaat sama jébal. ma nangu ko téewaat ko léegi nag ma nekk ci sama focus. nekk sama focus focus boo xamante ne parce que dëgg yàllaa ko moom. sagam sagam yàlla mi fi nekkoon yàlla moo ñu. ndax kay bi sénégalais yi ñoo tàyyi damb dee bu leen dara bett sénégalais yi ñoo sonn ci xeetu nit ki nekk billahi dañoo sonn dañoo sonn ni buubaa ni buubaa ni buubaa keroog dama yegg ci benn vidéo quoi benn waaye <coughs> Europe la nekk mu jël opposant yi leen <laughs> ni ci écran bi ba pare daani leen yéen a ngi topp naan Sonko na échec na échec jomaay day échec barke Serigne Touba yéen bis bu sonko échec jomaay yàq na ñu jël fekk leen Sénégal lam ca teg bare daan ni leen noo keroog waa ji day dagg li mu bëggul dégg saak yëpp damay tey waa ji wër na yàlla ba sama rongoo ji di roog a laal mu ni yéen ngeen ne réew mi day dem ngeen ne réew mi di dem yéen yëpp leen nit ñi xam nga ne sax xeetu vidéo yooyu ngay ree mais fekk lenn nga si jàngate mooy que ni gis nga nii boobaa Sénégalais bi moo sonn ci wax ju bon sénégalais bi moo moo sonn ci jëf ju bon sénégalais bi moo sonn ci rayante geeg xamuñu fi mu toll lan bëgg ñu dañoo xeex fi mu toll ba ñu doolee xeex ñun dañoo sonn sonn gi ñu tax man man xolal ma daan xusi ay taama léegi may xusi ma toog sama rox <laughs> sama parce que dépassé dépassé dépassé dépassé non vraiment tu n'en peux plus c'est que limite da nga naan ñii jaru ko. gis nga man. j'étais non gars yi nii. billahi nii boobaa gars yi sénégalais fi mu Sénégal ñii xamuñu sénégalais yi benn waaye nee na ma doom ma ne naa mu ne ma yéen am jot rek taal seen écran di wax def seen caravane mu ne ma gis nga ñi voté du yéen ñi ngi ci biir kër gi te xaaruñu lu dul bis ba jot ba ñu pareeg mbaamu xaraamata njaay yi yéen toog leen rek. gis nga gis nga gis nga nañ xamul nit ku sës maa ngi ko gis nga bi affaire yi di métti man sama bopp def naa fi benn acte boo xamante ne man je le regrette encore parce que man d'habitude je suis pas quelqu'un violent gis nga amoon na benn vidéo bu génnoon ñu doon sifaay bugguma sax tudd tur benn liveur bu faroon ci APR ñu ko doon sifaay buntu consulat ba man mi man mi maa commencé woon sifaay bi mm-hmm. mais boobu xam nga da ngay mer bëgg a faj sa mer doo gis foo koy mere nga toll fii gis Sénégal yoo xamante ne ñu jékki-jékki ñun ñu ñëw foofu di manifester mu ñëw dugg suñu biir ñu filmer bi mu ñuy filmé man sama yoon new boobu gisuma policier France gisuma policier Sénégal ci kawam laa tàkk damaa jubal ci kawam tàkk ci kawam commencé dóor mbooloo mi jékki-jékki jóge fee ñëw mais man sama bopp bi ma toogee après avec réflexion dama ne man pourtant d'habitude je suis pas quelqu'un de violent man xam mais au fait da ngay si dama loolu yëpp jàngal da ngay ne gis nga nit dina toll ci circonstance yoo xamante ne di nga def loo xamante ne sa xol moo lay yóbbee ci loo xamante ne bugguloo ñu bàyyi ñu toog jàpp suñu njàmbur ñu ngi campagne di béggee suñu xol yee ngi neex ñu ngi campagne yeenal gerte de niw niw buuma en tout cas xam nga ñi dugg ñëpp tàkk xam nga la moo tax ñu tàkk ma wax la les gens ont vu les vidéos réagir mais pros à parler dañuy sous-estimer gaynde gi wax na te dama la niw buuma nan tok ba suba ci waxtu bi insha rabbi ba naas xalifa di taalaat laay fam dinaa la démb rabbi yal nañ yàlla bay ñu voilà naan la nii bu baax ba ngay demaat naa mani la démb laa la waxoon ci live bi ni bañ yàlla may ñu ñu fanaan la jàmm am na ñoo xamante ni instant bi seen fit yaay seen seen seen fit mi ngi ci seen diggu ndox mais nii boobaa ah, xaaral ma jël euh, maam Sali wax ci yow wax ji yéen ñëpp maa ngi leen di ziar maaleykum salaam xaaral ma jël bi fee maam Sali wu demande na trois fois yéeg ndeysaan wàccaat maam Sali wu maa ngi lay ziar ziar naa leen sànq bi ma njëkkee demande nag jëloo ko woon soo ma jëloon ma wax lu ëpp mais alhamdulilah bi ma déggee proche ndeysaan jërëjëf ndax euh, sànq sama benn nijaay moo ma doon defal ndax dama dama dama dama dama ko mën a mënatul supporter wax dëgg yàlla ndax dafa neexul ci xool ku ci nekk da nga koy natt ci sa bopp ndax nag suñu gouvernement bi dafa neexul mais dafa xaw a faible bu ñu waxantee dëgg rek te yàlla tax bu ñu nëbbantewul ndax lii jamono Macky sànn kenn kenn sañu ko woon ndax ba ñu njëkkee kar président Ousmane Sonko xaw ma Koungheul xaw ma fan bu fekkoon loolu faj nañ ko kenn du ñeme ñeme def lii ñu ne déeta waaye ñu ne xaw ma koj nañ ko yoonu Jurbel pour lan suñu ministre l'intérieur lan lay jëriñ président dañ ko fee teg Bassirou Diomaye fay na jël ay mesures yu wóor mais gis nga li may wax chaque jour ñun Afrique xamuñu démocratie il faut nga xaw doon def yëfi dictateur gis nga yaay jàmm loolu lañu xam ndax boo gisee léegi ku toog ci télé bi saaga Sonko boo saxoon day jeex man damay dem ba à la saa yi du ma bëgg a seetaan TikTok ndax da gis ku tekkiwul dara toog ci télé bi wax sunk lu ko neex mais ministre de ban njariñ la ñu amal balaa caag ñu jël jël waa ji di polo xaw ma nu mu tuddee xaw ma Tahirou Sarr def ko ko ndax moom am na fulla sax wax dëgg yàlla barke alxuraan te yow waxuñu la nga far fii wala nga far fee comprendre nga mais ki tooñ nan ko teg ci yoon mais xoola xale yi tey liñ leen def ndar xoola lii ni mu ñaawee yor seeni jaas yi dugg ci boutique di jamaatee ka def ay affaires yoo xamante ni lii bu ci kon ne ba kañ ñun buñ doonee opposition ñaata nit la ñu rey ci ñun ñaata nit lañu ñu tëj ñu dem ba yëg pouvoir ñu bëgg kon ne noonu loolu ba kañ nag. Mhm. il faut ñu jël ay masir ñii ko def ñu jàpp leen tëj leen tëj gu metti en tout cas ko weesu. Mhm. mais en tout cas tu sais euh, maam maam maam maam Mhm. en tout benn benn mbir am na. Mhm. xam nga man euh, le plus souvent. Mhm. comme ni ko sànq euh, Cheikh sambo waxee yafe su gës bu ni patriote yi dañuy seetaan président Ousmane Sonko mi duñ ko déglu. man euh, président Ousmane Sonko ni ma koy waxee tout le temps bu ma ko seetaanee dinaa toog ñaari fan man wutuma ci nombre de vues maam Saliou wutuma ci ay nombre de cœur wutuma ci ay nombre ma xam ne moom ci ñor. naa comprendre message côté parce que président Ousmane mm-hmm. Sonko léegi dafa dem sax bopp mu mujj obligé di leeral wax yi fàng mais d'habitude day génn ak ay message côté mais démb dégg nañ ko ca Touba li mu wax en disant que mm-hmm. bi ba tey seen ay nit ñoo fi nekk mm-hmm. mais foog naa ni bii moom duñ ko bàyyi ñu baal ñu ñu jàll man damay comprendre ñu bëre yàkkamti gi ñuy yàkkamti mais xam nga tey ka euh, on parle d'état anecdote bu tuuti rek laa lay jox maam Saliou man avant dama foogoon ni mm-hmm. en matière d'état yow say nit rek ñoo lay topp mm-hmm. man euh, Mouhamed Bilal Diatta bu Kër Massar Sud lay àndal mm-hmm. je foofu dinaa la expliquer nga gën a mën a comprendre mairie la yore biir mairie bi waa APR dañ fa am seen ay nit ndakate loolu la fépp di doxee man ça m'a ma gën a xamaat àdduna gën a ranger sama bopp waa APR da fay nekk mmh. nga jël par exemple maanaam euh, beneen euh, kii bu ñoom Cheikh Tidiane Dièye dafa nekk ñeneen ak ñeneen mmh. mais tey maire ci boppam day ñëw toog ni lii ak lii leen bëgg def ñee wanka ko yow donte waa Pastef nga ñu lijjanti ñu loolu fi amee mmh. parfois ndeysaan dafa nekk ndaw ma respecté ko loolu moom maire il m'arrive parfois bu réunion amee ak ay conseil am barke salaatu faatee du ma fa traîner parce que man dafa am lu ma yàlla bindee c'est pas que dama koy incarner man sama nit la kenn doo laal fu ma nekk samay mbokk xam nan ko samay mbokk xam nan problème bu amee ci suñu sama yaay mooy njëkk a ñaan ni yàlla bu fa naas nekk parce que man sama nit doo ko ñàkkal fayda sama nit doo ko néewal doole nekkul lu may incarner yàlla moom moo ñaalee noonu mais damay daw génn barke salaatu faatee parce que bu ma génnulee du baax sama jikko day feeñ ci saasi dinaa tàkk ñu gis benn gaynde goo xamante ni amaana di nga am kolo sopp koo xamante dina ne waaw waa kon kii nii la mel li ma benn paa waxoon doom ñu tooñ ma ma mer defule na ma neexate bu ma defulee maa raw gaynde gu dof paa bi ni kii de bu ma ko déggee dama xam ni dama koo tooñ ndax moom day romb rek muur toog na ci biir bu génnee papa bu génnee liggéey bu ñëwee dafa tëju paa bi keroog ndeysaan daf may yey dama ñëw mu ne doom ma ne ko naam ma kaay ma ñëw mu ma doom démb gis naa la xaw ma ne ko papa maa ngi jégalu bi dama sës mu ne ma dëgg la mais dama lay doole rek boo amatee loola metti balaa ngay xataraayu fayu xalaatal ki la bëgg ba pare wallahi warabul kaabati li ñuy wax naan boo jegee mag mu am lu mu la dimbalee ci la sama tempérament dama ko dal lem ko ba rangé ko ma xam ni même bu la tooñee nga agir am na ku bëgg dina am un peu

ñetti at àdduna yooyu nit ku ko tegaloon dee nga ca dee yu njëkkee ba sa yeex raaf mais moom yàlla moo ko sàmmal boppam aaral ko boppam teg fi tey nii nit ñi nekkee fii di càll càll fii ci live bi am na ñu nekk ci biti man xam naa ji bugg président Ousmane Sonko ma maa xadee ngi nii du ma bàyyi ma fen dama bañ bi Sonko doo laa koy woote kooku bu déggee discours président Ousmane ko dama nga dëkk wetu kër Barthélémy Dias génn def deli bi gën a rëy du dara ci moom songo dafa bok ci li yokon tax mu nopi parce que xamna ni amna nit yo xamanteni ni bu waxee mënutu len maîtriser deug la yàlla bëgg tey benn nas xalfa tay mën na maîtriser bopom tay yow Saliou tay mën nga maîtriser bop mais amna ko xamanteni mom ni moom déglu moom lijjantiwul yow maîtriser wala déet lijjantiwul dara xam nga la lay lijjanti sunu waji amna lu ko métti tay ki ka tek il faut ko mu am lu ko métti te gis nga mam Saliou qu'on le veuille ou pas Sénégal ñu ñëpp ay Sénégalais la xam nga sànq ndeysaan perle rare dafa wax lu daw yaram nee na lii la fi Macky Sall bàyyi nee na xastante parce que maam Saliou douze ans la nekk douze ans yoo xamante ni kër yëpp tas na nguuru maki Sall ngay dégg ñu ni jëkkër fase na jabaram ndax Macky Mhm. man j'ai un cousin boo xamante ni Macky lay noyyee du ma je ne vais pas citer son dama xëy benn bis mu xam man kooku laa demoon ñoom Baye Jaxate bi ngay dégg ñi ngi may sitaan xam na bu baax li may wax frère am sama meilleur ami frère boobu la foofu laa mos a dem ñu ne dañ may convaincre ba neen dañuy woo Adji saar jox ma ko au téléphone parce que salaatu fàtte mën naa tëdd bañ a yow ba xool leen di leen ree kooku jabar gis nga jour bi ñu arrêté président Ousmane Sonko bu see limi bi nii dafa saa ci téléphone jabar dox politique ndax dafa ragal jëkkër ci dafa ñëw fekk leen ñoom ñëpp ñu toog di jubilé naan waa waroon na xamne dinañ ko jàpp ndax day sàcc téléphone jabar ji xam nga lan la wax dafa ne ko rek ay yeen yeen de lépp loo leen wax war ngeen mën a nangul di président Ousmane Sonko bu bëggoon téléphone jamaa patriote yi tey ñu jox ci junni téléphone jamaa mënu ko jëlal say bagage nga nangam taan sa day génn sama kër ci bitti mhm ba ay xartam ñoo ci japp dama dem jabar ji dama dugg ci rek comme par hasard mu gis ma rek ni ma nas kay nas man que na mu ni ma ngir yalla di gu waxee ci politique bu ci wax man comprendre ma ma ne ko waaye yow fi tudd sonko mu ni ma nas man da ma fase woon dem mhm. ma ne ko yow man nan fase yow loo jëteeg sama mag gi bi mu ko waxee mais dama ni ngam c'est que da ngay xam ni dafa am ñoo xamanteni wirñu mhm. mhm. deug la xeetu politique googu tey saaliw tey loolu la loolu la fi Macky Sall bàyyi man maa ngi wax les perles rares am naa ñaari mbokk yoo xamante ñi ngi may seetaan nii dama dama leen a bloqué parce mhm. que fatiha bu ma dajewoon ak ñoom ci mbedd du ma leen nuyu mhm. ndax wax xeetu wax yu bon yi ñu doon wax mhm. xeetu jëf yu bon parce que bi defa martyr keroog bi ñu toogee benn paa toog di jooy concernant ndeysaan doomam di wax naan Macky li mu def sama doom bàyyiwuma ko ci mais dama dugg te concernant di wax mu dugg ndey jëlal gaay défense de face mag mënuma koon saga ndey mais dama ko traité sax goor jigen da ngay da ngay mm-hmm. wodd te musuma sañ wax lolu sama mbokk man mm-hmm. mais da ngay xam ni ñom manam à quel point mu créer ay monstre ci biir dëkk bi yo bo démé ak lo bañ nit ñu ray nit ki domam yow nga tok ak sa dom yow yaa ngeeg lo xamante nit ko da ñak duko du ila gisati yow mi dina abadan yow même bo bañé nit ki war nga mëna am toute compassion envers nit ki mm-hmm. mais yow parce que yaa ngeeg sa njabot nga tok di rétan keneen ñaw to lol amu fi won mm-hmm. barke salatu fatia Macky Sall ak sénégalais yi dina ko dal yalla dina ko atté ak ñun wallahi mm-hmm. soxna xam nga soxna si man 2019 la tukki la Europe Hmm. deux mille dix neuf bokkoon naa ji doon jël parrainage yi daan ko yóbbu seize Macky Sall seize ba xuloo naa fa ndax ñoom dañu dem ba xam ne man ànduma ak ñoom ndax booba maa ngay parrainer Sonko sama benn waay bu naa fekk ñu ngi ànd ci seize bi mu ne leen kii de Macky bañ man ko waa dama koo bañ hmm. ndax dama xam jëf ji ñuy jëf moo tax ma bañ leen ndax dañ ma daan yónni pale parce que alxuraan dama daan dem pale ba bureau mais ku leen gën a yées yàlla sàkk ko non en tout cas. en tout cas yàlla dina ko àtteeg nit ñi. ku leen gën a yées yàlla sàkk Macky Sall li mu Sénégal li wax chaque jour yàlla li li Sénégal ay daj ci nguuru Macky Sall yàlla na ko yàlla teg gën a raw loolu. Sall dafa sonal Sénégalais. inde bi mu am ci li nga non man yooyu duma lire duma lire duma kii maanaam comme li ngay wax ndax yenn saa yooyu boo ko dee lire sax day yàq sa sa programme ci li ngay wax. non man dafa am ñoo xam dama leen di bloqué. franchement waaw man duma duma leen déglu ndax. moom man kenn ci doomu aadama sa waajur am na ko. non non c'est que Papu ne sama mooy euh, kilifa la mais dafa mer je l'ai compris mais Ndiaye calme toi. voilà calme toi jërul saaga man nañu wax xaj na di nga mer nii yenn saa yi nag nit nit la comprendre mm-hmm. mais mooy mu ngi noonu. voilà mmh. léegi mmh. mooy mooy li nga wax sànq ci e, maire maire kii bi nan la tuddati Kër Massar bi. Mmh. li tax man la Afrique soxlawul yenn démocratie lu demee noonu bokk na ci. ndax gis nga dëkk tubaab yi bu ñu ñëwee pour liggéey lu baax ñoom ñëpp dañ ciy jàpp ngir liggéey lu baax. mais Afrique ngay ñëw bëgg a liggéey pour ñu yàqal la comprendre ñu ne liggéeyul dina tax yow ñu jëm laa koñe pour lan loolu. ta ta ta ma yokkal la ci Saliou. ciy yokk leer mooy que ni tey ñi ay nit yu ñuul la na na yow amaana yéen a bokk quartier bi ngeen di yeewoo amaana sen dëkkuwaay sorowul mais li may wax rek l'ennemi de l'Africain c'est l'Africain lui-même les sales boulots. mooy mooy mooy nit ku ko mooy ñàkk jom nit ku mooy yées. nit ku ñuul mooy bon génn dem def ji ko nit ku ñuul tekkiwul te kenn du tekki ci moom nit ku ñuul avancé wul buggul tey kenn ku avancé tey li nga xamante ni président Ousmane Sonko bu seeli bi gën bi dafa nekk ci moom yàlla defal ko mooy dagg xolu ñu bëri te da di dee dañuy dee loolu proche cherché wu ko am na loo xamante ni jàng maye ko gis na loo xamante ni bu doon jàng moo ko doon may amaana tey kenn du déglu président Ousmane Sonko bu seeli bi gën bi am na ñu ko ëpp dëwul bu tey bu doon xaalis la am na ñoo xam duñ ko dégg mais di nekk ci moom yàllaa ko def ci ñoom man nag defe yaa yi dama wax ak ñoom mais ndaw yu bon yooyu topp ànd ak ñoom ay nit yu tekkiwul dara ay ndaw yoo xam ne yéen saa yi day dem ndaw yi nga xamante ni ñoo yeewoo ci réew mi ni ñooy mbaam sëf ñoom mm. ñooy ñi nga xamante ni li ñuy wax rek ñoom seen doq gii ñoom ñoo jël rek daal ciy jël cumulé defet noonu xaj yu tekkiwul dara Lâcheté versus un homme, qui t'assume, Tu n'as pas besoin de prendre un arme, une arme pour ne yangi agresser son moromu goor. Ba ngeen démé ba maté ko, da ngeen di mën ngeen ko, da ngeen di jël seen bop tay la ké la ngeen di soxla ay jaasi. Do len wacc ñamanté ak gaay. Yombul won. Non Sénégal dama bari ay lâche yu fu nek ya, eh, Macky Sall limu yak ci réew mi bari na man mi sam papa Macky Sall la mais yenn saa yi bu ñuy wax moo may mujj ma léegi nan bàyyi wax ji ndax man su may wax du ci ànd ak sama sago. am na loo boo koy wax Ousmane Sonko du ma ànd ak sama sago dekk xajam dekk ba xam ne man man àndatuma ak sama sago day da may mujj mais man li nga wax léegi man bu dee mag ñi sax mën naa comprendre ndax ñoom seen àdduna wéy na lu bëri xamuñu ko mais li nga wax léegi ñi nga xam ne ay jeunes lañ doon ay xale toll ci seen digg ndënd mooy li may wax dama ko wax sam benn jarba mu ne waa ma ne ko man âge bii ma toll bu Sénégal di neex dëgg-dëgg lu ci ëpp du ma ko fekk bu ñuy xeex mu naa ma ne ko yéen yéen a tax ñuy xeex mais pas man yéen yéen a tax ñuy xeex ak suñuy doom man ko gis nga fii Sénégal toll période bii mu toll tubaab bi toll woon nañ ci jamono boobu mais danga koo xeex ba am li ñu bëgg kon il faut ñu xeex il faut ñu jéem a nite mais pas nekk ci TikTok bi nekk ci fecc ay affaire yu ñàkk fayda yoo xam ne amaluñu benn njariñ. demal nga déglu discours Ousmane Sonko lim lay wax ba xam mën na la convaincre wala déet ndax képp ku ko déglu di nga xam ne boo dee nit. Mhm. di nga xam ne lii mu wax mooy dëgg ndax. nga ni bu fekkoon réew ma tegoon na ci yoon. Mhm. kuy tukki soxlawuñu tukki. mais depuis mille neuf cent soixante ba nga ni ñu yàq réew mi kii mujjee ñëw nag moom moo gën a bon ci li yàlla nee naa li asamaan bi diim. lu asamaan tim may leen tuuti kilifa gi rek mu mu yegg naa ko bàyyi mu wax si ngeen taxatawaale mais gis yal na yàlla gën di la jàppale yow it gën a amiin maam Sadio yàggal taxawaay bi ci barke yonent bi aar patriote yëpp barke yonent mais Sonko moom xam naa day gar na ko may dellu daal di wax ñëpp daal mooy maam Saliou concernant Dakar fii certes tey ñu bëri seen xol tànk na mais aussi il faut pas comprendre gis nga tamit mbir yi il faut aussi ñu situer les responsabilités mooy dëgg Afta dit que ni fii au niveau de Dakar y' a cent treize mille neuf cent quatre vingt quinze cartes am na lenn loo xamante ni xam nga dangay dem ba benn instant danga naan est ce que yiy tax chaque jour ngay taal sa live di yuuxu ñi ngi lay dégg waaw wala gét gis nga xeexo pros mer na ñun pros mer na pros kontaan na pros xam nga la lay xaar ci yéen ka ngeen yori lii da grâce képp koo xamante ni yoroo sa carte d' identité dem leen ngeen récupérer ko. Mm-hmm. lii dafa war a nekk loo xamante ni source de motivation la war a doon kenn ku nekk ci ñun. ngeen dem récupérer loolu nag pourtant pourtant xoolal soxna si ñu enterré gars yi une bonne fois pour sama yaay sama yaay xool état bi bu ñu def ñu defoon leen donc dina yomb bu ñu commencé woon def contrôle ku amul quarante ñu fay lool la trois mille léegi ñëpp jëli ko. non ñii dañu yabaat non. limitant doo xam sénégalais lan la bëgg. doo xam sénégalais lan la bëgg ay dañuy voté ngeen jot ngeen taxaw tàcc ni bu waxee ngeen yóoxu waa ay waxal pros. xaar mais nag leen de mais tamit soxna si ah, soxna dañuy defar xol dañuy defar dañuy defar. def ci lu mat cinq état bii fi jógee dañuy defar benn carte d'identité def ci lu mat cinq. loolu tamit dañ koy léegi Saliou bi a wax am na yeneen xoolal certes certes état bi fi nekkoon def leen seen ay njuuj njaaj d'accord mais dama ni na nit ñi génn dem récupérer seen ay pièces d'identité mooy dëgg de moom nan dem ñu récupérer ko ay génn damay xeexali ji Sonko Sonko santul kenn ngeen génn dem xeex dëgg da koy wax dee parce que aussi yaa naa rarbol ci li nga xamante ne dafay xew mënoo toog tout le temps waaw lii dafa ma metti laa dafa ma metti nangam ak sàngam dia vous avez besoin qu'on vous convaincre sur quoi man ma nekkoon pros dama fi nekk defi di discours damay dem toog ji pros tedd na ba pare ah il faut que ngeen xam ko <laughs> ainsi que son excellence non may ma a ma ñëw ainsi que son excellence monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye tey ñoom bu ñuy saar seen bopp di sonn pour suñu avenir la ñun tey bu ñuy génn tey di wax di sonn tey ñun amaana tey ñaanal yàlla fekk ko mais amaana tey incha allah ah, ñëpp a besoin tout le temps ngay toog di wax. tout le temps pour rire. non ñun ci suñu bopp on nous appelle sëñ bi may ma rek ma ñëw. parce que ñun même bu dul loolu on nous appelle partout. dañu yor ay info. tout le lay woo naas Xalifa carte d'identité yaa ngi fii. Hmm. foo dem concours fecc. Macky Sall fecc noo leen ba ngeen réer. mais loolu quand la Sénégalais di nekk nit. quand est day foog ne nekk fii une deux trois kii génn fii lëmbal fii lëmbal a xeewi. moom kii di wax fii góor nekk fële naan day màcc tuñ kii toog fii di wengal wengal xeet yu bon yooyu la ñu bàyyi. est-ce que vous avez jeex na ci Sénégal. akamaa metti akamaa metti di naan day wengalu nga gis jigéen dem toog ñaawal ba xol yaay sedd. ñaawal ba seen xol yaay sedd moo de leen golo goo gis ci kaw suuf am na kenn ku a bëgg euh, ah bépp golo boo leen gis ci kaw suuf am na kenn ku la bëgg est-ce que vous avez besoin taal seen écran nekk ci di war mbiic waraa mbiic yéen lépp loo xamante ni gars yi dañu am fit di ñu ko def buñ ko jiñ Jean buñ ko jiñ Paul on va situer les responsabilités du kenn ñu na ñu ne nekk ci toog bi di golo gololu ñu ne lañu wax nga boo gisee Macky Sall Macky Sall respecté loolu bokk na pour benn la trois mille nga dem jaayi sa ngor nga gis sa moromu yaay ju ne faxat génn sol toog di si ñii bu ceeb ceeb mooy toog di jooy ah bu ñu indee facture courant ñoo jëkka taxaw ak la lajj na yow lan nga liggéey pour dimbali état quand est-ce que vous allez utiliser vos pour réfléchir quand est ah.

barke alxuraan bu ko neexoon tey tey tey tey tey tey jël yëpp lim yëpp tegal fi président ba Bassirou Diomaye xaar fay dem yéen a ngi am nit koo xamante ne xool leen caravane am tout le temps mi ngi sëqat bu saxee garab ñu ne ay xaatim la di chaque jour ñu toog ci plateau wax ci yaayam loo xamante ni man. kooku man sama yaayam loolu borom xelu gàtt yi la rek. non borom xelu gàtt yi que léegi. yéen jusqu'à jusqu'à quand vous allez réagir mhm. jusqu'à quand ngeen di nekk nit. vous avez besoin tout le temps qu'on vous des ordres parce que Macky Sall vous a ci ñi ma ko sañ daf leen a mal point que daf leen jël daf leen benn genre chien yoo xamante ne da leen dressé au point que aksi yi ngeen toog jóge leen fekk ngeen dof dofu reetaan leen ngeen kaddi kaddi quand est-ce que Sall va cesser nekk nit yéen tey amu leen lenn loo xamante ne da ngeen koy ñeewee nasaraan te da ngay gis koo ne da def bopp neen jigéen boo xamante ne bu déggolee cheveux daw ba fële ci xool loo xamante ni yow miy jigéen sax man yaa de fii yaa yoo xam ne dugg ci biir naan la amoo karaw ah dem jël karaw tubaab daf ko ci sa bopp dafa tax nga nekk yow boo demee sa bopp baa nga wattu ba mel na ndare mais nga assumer ko man j'assume ce que je suis léegi moo xam bu tegoon ay wey yu gudd fële mel na golo gu say ah yéen lu leen yebee ci di yéen la lu ñu yebee sénégalais yi rek buñ ko jiñ champ ci ñun la lii ngay wax lii ngay wax nii barke Seydina Mouhamed récupéré mon carte d'identité fii du ma fi nekkaat wóor na yàlla dafa def vidéo wala toog naan gars yi jël na seen ay carte d'identité bul tàyyi bul tàyyi bul tàyyi nañ def rek nañ def na ñëpp non lii nga wax lii nga wax nii ci jigéen ñi non bar xam naa ñaari baat rek laay wax grand te wàcc soxna si xool li may wax lépp résumé lu nga ma ko chaque jour dama ne ñun kañ la ñuy nite di golo golo boobu tey ñu naan ay danaa nekkul jigéen nag ay jigéen man ku ma fekk ci kër xam na ne ku ma fekk ci kër barke salaatu fatiha dara jëy sëriñ Aboubacar Si Maalik man bi ma bëgg woon naa ak yow ma def uddul Mbarka Njaay wala ngay fecc ci TikTok barke alxuraan dama ne la ma sëñ man jigéen ju ma fekk si ci biir kër barke salaatu fatiha dama lay jàngal liggéey naa si xalifa day araw naas xalifa day defar cere naas xalifa day defar fonde naas xalifa day defar laax day jël dugub dem yóbbu boo tegee léegi ma soqal la ko pare sebeti ko wale ko ñëw toggal la ko naas xalifa day pot day gome day paase namu ma daraay jigéen la problème lan la rek bañ a xaar boo jëloon kaamil alxuraan ba tegal ma ko léegi ma jàngal la ci léegi ba sa xol seet lan la lu tere ba mënuñu nekk nit fekk y' a de choses xam nga luy dagg sa xol wallahi wa rabbul kaabit xam nga la mooy dagg sa xol yow da ngay xool tout temps li xew ci réew mi tout temps tout temps tout le temps. ubbil xolal bu live bi paree léegi ubbil TikTok. dëgg nga xam ne Sénégal bi dara frégeew ko. bu toogoon naa di ay chorégraphie. yow da nga naa di toog ñu naa la ay chorégraphie nga nekkoon. man sax seet peut-être que ëllëg dinaa toog dama fi nekkaa mais buñ toogee yëpp ci TikTok xool benn vidéo dina ne ndeysaan. doon na wax loo xamanteni ni jëriñ na askanam. lan la leen sant ñaanuñu leen xaalis ñaanuñu leen lenn pros leen la leen ñaan dem leen ngeen récupérer seen ay carte d'identité est-ce que c'est difficile est-ce que c'est difficile d'aller récupérer vos pièces d'identité une bonne fois pour toutes élection bi jot ñii benn député war ñu ko am assemblée nationale seen jëfu xaj yi ñu def ñun ñoo ko war a mën a régler suñu bopp benn député war ñu ko am. sénégalais yi war na leen bon ni war na leen jox leçon bu fort boo xamante ni ëllëg ku namati jug di def lu bon sax di nga ko ci mim réew. on a besoin de retrouver nos valeurs ñun. loolu soxla. tey soxla na tey ñu ne Sénégal kat ba dëkk ba nekkee di dof dof lu mais fii ay histoire maam Cheikhul Khadim la fi bind radiyallahu taala anhu lan moo ko ko may fulla fayda jom ànd ci woon ay mag yu am fulla ak fayda jom tey d'accord ñoom seen époque passé na mais yàlla indil nañu góor gi gën nit ci biir nit yi. Mm-hmm. koo xamante ni te depuis sànq laay toog ak benn maire mu naan ma Aliou Sall ne dafa ragal Ousmane Sonko ma ne ko bu dee nit dina ko ragal ndax moom moo tax ñu dàqalu ko fonction publique. Mhm, mhm. depuis 2016. Mhm. pros depuis 2016 mu topp di cumuler. dawul daayul. gisul leen ko benn yoon tukki xool leen li ma leen wax xool leen président Ousmane Sonko tukki mi génn fan ak fan la. da ngeen ko gis France ak fenn mi ngi leen di wan ni man faale ma kenn man yéen laay topp. Tout le temps, ces propos sont vous, les, vous la jeunesse. Vous la jeunesse, vous la jeunesse. Mais quand que yéen ndaw yooyu bu nit di namee def ay saal kuwam yéenee génn dem def ko bu nit di def lu bon yéen lañ koy sant tey bu leen justice ñëwoon ne leen kirtin njàpp seen yaay yee njëkk a tëb yuuxu waaw waaw waaye nag ñi ngi xaar tamit faal ba gars yi def enquête ba ni nit ñi ne war a nit ba gars yi di posté mhm. àdduna lu waaye def rek pareel nga am aussi grandeur bu toll na nga toog nga assumer ko yéen ñi gën di wéy wéy xam ngeen di bandiw leen parce que njabootu Sonko li mu ne tax Sonko dafa njaboote ku nekk mhm. li ngeen di jaay nii am na ci ñoo xamante ne dañ koy wéccee nii wala dañ koy may wala ma nga ñuy yor pàcc jël ka sànni ko teg ko fële xoole woon mhm. balaa ngeen di jël yéen di ci engagé wu di def tiim seen moroom jullit tiim seen moroom naaw la yorul ngaa naay ngeen jël seen ay gànnaay mel na ñu di xaptal ah mhm. mel na ñoo xamante xaw ma da ngeen a mandi xaw ma dañoo drogué wu te a di di leen ko def ah pour lan au nom ah, Barta leen ko jaral Barta moo leen jaral loolu yéen a ngi noonu laay sàngare moo leen ko jaral mbott mu mag moom nga xamante ni Bartosa sax moo ko tànn faal méttiwul pare leen ngeen endossé ko rek. moom ci boppam sax day am problème ndax Ndiaga Diouf moom mu rayoon rek dina am problème <laughs> en tout daal. en tout cas maa ngi lay ñaanal takk naa la xarit yàlla na la yàlla gën a sàmm ndax eh, di nga dafa ba da waxe xol ndax bëgg nit ñi yeewu te nit ñi bëgguñoo yeewu mais yàlla nañu yàlla gën a dolli ci barke yo bi na incha allah maa eh, bravo sister wax ji alors soxna si. jàmm. allo waaw ma ngi lay delu dellu siyaar oh, sama sama ki bi dafa dafa ki waaw ah, kay loolu la fa demee. waaw soxna si ma ngi lay ziar ma ngi len di ziar. yaa ngi si jam maa ngi si jam bu wer yo tamit ba yaa ngi si jam sister ñu ngi sant bu baax mais wax ji rafet na. Ah, dama dama dama dama doon véhiculer de xool mais may gis sa hmm. waa Pastef yëpp ya di wax xam hmm. nga man duma Pastef na bëgg na déglu ma bu baax waa ya Pastef yëpp di wax waa Pastef yëpp di saaga ñi mer ñi di def ay live di kaas même li ngay wax ni lañ doon wax Bart li def ñaaw na Bart mo taxawon fi di défendre sénégalais kon tay mom quelque soit alpha ak lu mënti xew mom warul nek di and ak ay ñi def ay def ndax mom loolu la doon xex démb kon tey ak lu mënti xew même bu nekkee dañoo tiit ni parce que tey jël élection yi tax waruñu doxalee nii nii dafa ñaaw ni ñu pour ñu na gouvernement bu bees bi ñëwee te man gis naa live boo xam ne ñu ngi dal jomaay je sais pas que qui se mais man je a dis que jomaay war na jugaat taxaw xool li muy def dëgg la de moom demul élection moom boo xoolee en tant que jomaay moom demul élection de booy xool parce qu'il est président mais lu mënti xew ñun jàmm lañu woote ñun jàmm lañ bëggoon mu dellu Sénégal man mm-hmm. ànduma ak Sonko ànduma ak Jomaay beneen parti laa bokk ànduma ak Bart ànduma ak Khalifa ànduma ak ñii ñëpp man ki ma àndal kenn rek la muy Ablaye Wade parce que générosité moo tax su ma koy ñun ma da nga dof man leen ku nekk ak ni ngay politiquer parce que man su ma gisoon lu ma xam dëgg-dëgg pour à cent pour cent soxna si damay dem yaa ngi dégg mais dama gisul lu ma xam à cent pour cent moo tax ma taxaw fi ma taxaw mm-hmm. parce que nit doo tricher yaa ngi dégg te da ngay sincère te nit da ngay fàttaliku démb te dafa am foo xam dañ fa jaar ak Ablaye Wade loolu nag laa jàpp kóllëre googu laa téye mais je te dis que man li ma gis ni neexuma gënul ma parce que vraiment ñun jeunesse bi dañu war a jug ñu taxaw takk suñuy sër takk suñuy ceinture parce que lii du dëgg du yoon ñun dañu war a dépassé fii la présidentielle dafa ñu àdduna yëpp teg ñu bët ñu def ñu dañuy taar réew mi ñu ñëw def élection yu dégg dayoo def élection yu leer yu neex yu yu am maanaa ba ñëpp jël ñu def ñu royukaay kon tey bu ñu nangu bu ñu yegsee ba fii ñu ñu koy yàqal kon yéen Pastef jug leen ngeen taxaw. nii non billaay maa ngi xool maa ngi jégalu bul foog ni yow laay dafa am ku ma xas dafa ne ma jël ma maa ngi xool ma koy jëlee bul ma sa ñaawaay merci beaucoup continuer. waaw waaw déglu ma nag kaay ma wax la xoola gis bu la bëggee la lay def. yow day ñaaw non man garaaw xasuma dafa ma tàgg. waa déggoo de waa déggoo ma chéri man ma ngi lire commentaire yi sànq ba tey gis na lolu mais xalo lolu yeb xam nga pour lan la déstabiliser la lér na ma wa APR yu bon yi la déstabiliser donc lolu tax ñu lay bind ay sañaw mais bu leen lijjanti bu len faalé dégg na li nga wax ci sa jigéen ma chéri ah. ke salatu fatiha daraje sëriñ aboubacar si marik allah taala anhu dérangé wu ma dama ah, ñaaw ba bitt sama ñaaway moo tax continuel ya, mo mer dama jëndi ji parti ah, jëndi ji parti ñoo daa nga màcc ka tax nga féex waa wuyu ma. waaw daa xamul ci daa xamul ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ la jëlee. ndeysaan macha allah lay kontaan ba foofu kuñ fa jëlee ñaawoo te yow xoolal waxuma la dara may macha allah tu es pertinente man. fa xoolal man dafa am foo fa benn la am naqar man dafa am foo xam ne dañ ko bokk maa yow te bugguma fa dugg di yàq live ndax li ñuy wax. thème bi ñuy wax bugguma yàq thème bi comprendre nga. Hmm. Hmm. mais dafa am loo xam yow ñoo ko bokk en commun. te loolu ku ko am am nga wéeruwaay nañ bàyyi foofu mu jaar yow bàyyi la ñuy wax rek. yow moom dafa am kanam lu baax am nga wéeruwaay taxawal foofu taxaw mais xamal lan laa bëgg nii hmm. ngay waxee bul bàyyi fii nga nekk bul bàyyi parce que ñi nga xam ne ñoom bëgg nañ dégg-dëgg. bëgg nañ gis dëgg bu ñu yemee ci live dégg fi ngay waxee ak ni ngay waxee xam ne yow hmm. sénégalais cent pour cent nga da nga bëgg sa réew même si c'est Pastef yow da nga bëgg sa réew yow nit ku citoyen la man boobu ba léegi maa ngi lay suivre yàgg naa ci live bi de boobu ba léegi maa ngi toog di la suivre mais ni ngay waxee non non du question Pastef de question dara dara daray Pastef ak Sonko xam nga question lan la bëgg sa réew bëgg jàmm ak salaam bëgg sa changement ci Sénégal bëgg lu baax Sénégal pour ëllëg suñu doom yi am fu ñu taxaw ëllëg hmm. suñu doom yi mëna a siggi buñu hmm. tapé live def na ci xalifa gis lu rafet lim doon wax lu baax lim doon wax malgré que ñu ngi koy sanni ay track ay pic mu dëgg ci tankam di wax fulaak fayda ak jom ju bari man li nga wax sank ni ku dugg sama kër fekk fa fayda ak ma saf jigéen lo rek doyna na wax ji hmm. li ci dess nak l'apparence est trompeuse li ci dess nak jarta wax sénégalais nak mo mel non buñ la bëggé jaar fenn rek wala ñu yakal rek il faut ñu sa ñaawaay sa dagg ci ak sa nangam mais xam nga lu lay ci yow ay don't care anyway ngay dund. laa ilaha illallah yow soxna si soxna si mhm. man mhm. capitaine projet bi laay àndal. kooku kooku ku dul gaynde du ànd ak moom. jeex na ku mënta ay yàq du ànd moom te gis nga naa la leen de gis nga président Ousmane Sonko. Mhm. te yow dama la comprendre xam nga boo nee ga man sama sœur da doon politique ak Ousmane Masseck Ndiaye. les amazones de Ousmane Masseck Ndiaye ca Ndar. ndar man foofu xëy la virus politique dama ne mhm. foofu la virus politique doon xaw a yeewoo ci man may suivre nii di xam barki dem mhm. dañuy toog di wax bi ñuy wax ci mhm. affaire politique boobu dama sibur mu xool ma dama doon fekk ma ne ko maa ji mu ne doon noppal ko ma xool ko ci bët mu ne si yaa dama sooy yaa aaye nii la ma ko xam nga gars yi dandul comprendre gis nga boo fekkee ku gaaw koo xamante ni ku ñuy gaaw a déstabiliser day nekk nit koo xamante ni amul confiance ci boppam. billaah waxate ko. man na man naa soxna si ci ki ma wéeru kooku tàppe du wéeru ci moom. ah ah, ah, ah, ah ku gëmul boppam di wéeru ci moom dara jëy. dara maam xalifa du ma yaakaar. ku ko bëgg maanaam xoolal gaynde mooy nekk taalibe maam xalifa. billaah waxate ko. ku gëm sa bopp kooku kooku la yàlla di dimbali nga nekk taalibe Serigne Aboubacry Sy Malick rabbi yàlla taala barke salaatu faatiha. sans complexe boo fekkee taaliba Serigne Ababacar Sy Malick nit ku dëggu lay doon. billaahi billaahi dama ne soxna si. kii hmm. day leen toog xaar maa ñaaw ni ba sama xol yaay seet. te yokk ñaaw rek ku jóge ci leer yonent bi sallallahu alayhi jege woo ma. Ah, bi nee na ma yow chef xoolal sama génn sama live chef dàq naa sama live <laughs> nee na sama takk ma nii laay mel chef génn sama live tiap ndar ndar bu ko am nattu soxna si dama am nattu man dama am ñoo xam dañuy dugg te mënu ma leen dàq ba ñu génn waaw waa déglu ma yow sa sourire lu ne la xanaa en tant que jigéen maay ya, wax iya. nah, ya, ak yow ndeysaan jërëjëf xolo jigéen balaa ya, ngay xam rafetaay am xam nga foo koy nattee ah <laughs> foo koy nattee xolo li nga def nii sa bopp ndeysaan eh, gis nga sa bopp bi eh, déglu leen gis nga eh, sa bopp bi nga ko def s'il vous plaît fermez vos micros s'il vous plaît voilà merci beaucoup soxna si continuer xaaral aji voilà foog naa ni man maa juum mute sa micro waa aji waaw jayuma la jayuma la dëgg lay wax ndax ndax ndax fi nga wéeru fa laa wéeru mu Seydi Aboubacar su ma ko dugg foofu su dañuy yàq jotaay bi te fu mu nekk mhm. waxi politique waxi réew mi la ñuy wax te il mhm. faut ñu wax ci tuuti rek moo tax ma lay wax mais gis nga ni nga def sa bopp bi plâtre ko mhm. ragal du ko def jigéen jigéen balaa muy gëm boppam day def à la garçon baa mu def coupe baa mu def plâtre wane kanamam wane beauté naturelle am te ñun Sénégal fañ dànkali jën fañ dànkali ceebu jën ñaaweewuñ fa ah rawatina daal lay ndaal daal ah, bu ñaaw amul daal bu sëñ Aboubacar bu ñaaw dégg nga lii nelaw ci yow yee ba mu neex maa sa ginnaaw ndeysaan maa sa ginnaaw gaynde gi nelaw ci yaw yee ba mu neex ndeysaan en tout cas am naa aji am naa contentement ndeysaan nga yëg ci live bi man xam nga xam nga lu ma gën a neex ci yow yow sans complexe ngay demee tiitoo ragaloo te loolu yëpp li la ko mooy mooy sa wéeruwaay mais man wóor na ma intérieurement de ta bonne famille man xam naa doo nit ku complexe parce que man lay déglu sànq ba tey ndeysaan lay ba tey Barth nag moom li koy xaar mi ngi koy xaar di dafa wor ñu ni déet waaye ñu dem ba ci fi ñu war a dem yàlla woon ko boppam ñu jël présidentiel ma noonu laa mën a waxee du ma Pastef mais li ma gis tey dëgg laay wax moom xamul li koy xaar nag fii nag Sénégal la mag ñi dañoo uufaale lu bari to ci barki démb la ñamal nañ ko ca nguur dugg ci famille yam bu maytu dina dégg leneen na bañ a maytu boppam nag mi ngi laal laal laake ndax Ousmane tamit issu de bonne famille la hmm. waaw maytu boppam na maytu bopam isman Ismaël Walo day foiman rawan ngom bu pala na maytu bopam xamul fi muy dugg c'est que c'est que man damay japp rek ndaysan aji tout d'abord dama lay remercier ndaysan parce que wax nga legui ndaysan c'est pas donné xam nga man tout temps il faut que may dekk aji xam nga lutax xam nga wax yombut da ngay xam ni internet la ñuy waxee nit ñi dañuy jënd sen connexion aji donc ñom bu ñu defee effort ba ñew yéeg par respect il faut nga nga nangul len effort bi ñuy def même bu dé dañuy dugg sax pour yàqal jënd na connexion pour ñëw dem tok wax ak yow ta amna ñu le kenn xama ma lu tax duma man duma yëg lu bari man dama japp ni dama nek jambu xew aji japp ni am lu ko gën man euh, effort bi nit ñi di def di ñëw pour tok ndeysaan di partager ak man live bi ku ko xeb man xeebuma ko barke salaatu fatima parce que nak bu xolé xoolee ki nga xamante tay moñu na nampal yeñu ci politique tay dafa dafa njaboote ku nekk mhm. président Ousmane Sonko fu mu taxawé xolal ndika wër di nga mhm. gis nalité bi di nga gis complexe bi di nga gis ki dégg ak ki déggul mhm. façon bu nek dañ koy gis kon da ngay xam ni yow tamit avant ngay dugg ci liggéey bi da ngay xam li Pastef njaboté waaye lool tamit bo paré da ngay nangul ki nga xamanteni ni Pastef ko waye koku tay man duma sor wa Pastef xam nga tay kan aji ki gëna a bañ président Ousmane Sonko bi sé libi bi koko dina tax tay tay bu ma togon baña def live sax dama nan fokk mu juk def live bala mu nan ñaw dafa taw ta man sama yaay daf may wax benn mbir da da xay yag wax nan ma man suma bëggee nga def dara dama naan la mënuloo ko ndaysan parce que xam nga ni man lima nit juk di ma xañ ni ma do ko def barke salatu fatiha lo lay gëna a mën billahi billahi parce que dama lay wan ni la Mhm. li maam xalifa Aboubacar si Malick radiyallahu taala anhu doon wax waxu jooju dama ko téye nag daf ko sama waxu boobu li ma mhm. nit lu mu ko jaral ba mu ne la doo fi na mhm. jaral lu ko raw ba nga ne ko maa ngi. billaay billaay si Malick waaw mag ñooñu xam nga yàlla dafa def ci ñoom loo xamante ne aji boo koy déglu di ci bàyyi xel du ma ne doo juum parce que yàlla rek moo dul juum. waaye dina bëree nit kuy toog di xaar pour nga faqastal lu ma sama benn mbokk mosoon wax Dangai ngay xaar ci tatu um ndalo man ne ko dëgg la de waye na fekk yaayam jangal ko xaaraan billahi billahi ndax da koy jangal wet gore wet lu ko gore Jangal ko liko ko sombi gi ci kër gi nala doy da ngay toog ci tatu ndali ba mar te do ko gi senegal lu mu metti metti ay am na ngor la ñi deme la waji waxon di ma senegal rek am gor am gore ngor am na fi gore ni ci billahi waaye nag foog ñu nangul aussi kani lu gën ci mbindeef alayhi salaatu wasalaam amul woon aji hmm. munoo koo am man duma ko am man damay ñaan yàlla ci darajee sëriñ Aboubacar si Malick radiyallahu taala anhu suba suma yeewoo yal am ñett taxaw nii du dem parce que loolu day bokk sama gàllaaj man ku xam njaay ku xam njaay ñi ma yar tiituñu ci benn yoon man neem bul neema rek bul yegg lenn rek na laa ragal ci sama àdduna wallahi borom bul xaaj yow rek laa doon wër rek. tooñ doomu aadama. waaw barke salaatu faatiha. Mhm. loolu laa gën a ragal sa waajur ji ma jur danaan ma bis boo tooñee nit xamal ne sa gàllaaj toj na. billaahi billaahi. bu weesoo bu weesoo tooñ nit. Mhm. dundee lu lewul parce que day day day day toj gàllaaj. Mhm. yaa may dégg wala déggoo ma aji. bu baax a baax bu baax. pros gàllaajam dafa bokk ci dundelu lew mhm. ki la dàq seral ay xolu waajuram surtout ma yaayam ma sama yaay c'est ma meilleure amie mhm. macha allah ki nga xamante ni fu mu génnee man maay jigéen ji nga xamante ni mën naa fëgg sama dënn donte yàlla rek la moo ko yeyoo mhm. mën bi may ma tuuti rek ma ñëw mën naa génn sama kër sol pantalon mhm. def body def ni sama sac tout temps kol la ci yor bo talele kamil alcorane dama koy tey man duma dox sa japp yalla ma may ko tuti yalla ah, ma may ko ah wa xaaram ma jël waji ba may lolu aji te ñew wa shérif ziar na la wa soxna si na nga def way shérif ziar na la gu mat way no def tay yow si yow la yow no def tay ak nakar gi nek ci rew mi mané nakar gi nek ci rew mi dal xol bu dag rek kay indi bayi len fofu xam nga man man ab lébu laa ma man man man ab lébu laa damay ñaanalaté ndey Faal. ab lébu laa damay ñaanalaté xamal tax li tax ma fan la. ndey Faal. Euh, sëriñ Babacar si mi nga tuddu ndey Faal. Euh, yaayam sox euh, yaayam. sa bàjjan la ci man. soxna Astou Kan Ah? mani maam roqaya allah ta'ala anha jehna iya, euh serigne babakar si mo jur serigne mansour si borom daara ji du deug bu wér mo jox sama ay sagaru ñam mani la serigne mansour si sama yaay sagaru njaam waa déglu ma rek sëriñ soxna asu sek mi ko jur soxna asu sek mi ko jur sama bàjjen la boo dégg ñu naan sa kër sa dégg mbaaw mbenga mbeng yoo fi géej maanaam moom ñoo bokk urus mak urus ndaw Susu mana maanaam suuf suñu jaay day wàllam day génne kon yow boo ko bëggee da nga da ngay boo boo nee naa si mu sëñ Babacar si da nga ku baax da nga mënoo def lu dul baax. ndeysaan ndeysaan euh, gis ñi ñi baax ñu baax ñooy ànd yow ku gis rek ku la gis xam ne doo nit ku bon yéene la doo nit kuy moy doo nit ka nga xamante ne foo taxaw ñu foo taxaw àdduna dama ne boo taxawoon sa fukki moro bu ñuy tudd bu ñu la newul benn yaay doon ñaareel bi. papa yaa ngi may seet de papa yaa may xool papa génnal foofu. barke Seydina Limaamu barke Seydina Isa bi wallaahi laa la wax. dinaa la benn affaire de. galañ bi lay jiit yow galañ bi lay jiin nekkul ci sa noon jéem jéem bare. daa lu baax am lu baax te àdduna xol la yàllay fay. politique moo politique moo politique moo dajale àdduna bokk façon nit bu ne ngay gis. façon nit bu ne ngay gis. lii la lii la yëngal. moo yëngal àdduna kuy taxaw di wax si yow macha allah dafa xamul rek. soxor. mais bàyyi bàyyi laay def lu baax waaw continuer si lu baax li ngay def. incha allah ah. Chérif si lu baax li ngay def gis nga man euh, temps yi laa commencé dugg si TikTok bi. te euh, politique bi moo tax mu dugg ci nii damay des fois damay jël sama temps ba trois heures du matin. te nag te a kilifa les de man lébu laa lébu Le lébu pire. ba pare di commandant pilote di dawal chaloupe bu suis un officier de la marine marchande nëbbuma ma la allah ba pare don dignitaire lébu il di lamanu sàngal kam. yéen waay ndaw. amul di sëtu dëgganta barax tene ndooy man maa jur ndakaaru macha ne sonko riirum géej la baax na xam nga lii géej sonko géej la dafa am lu yàlla dogal nag te li yàlla dogal dogal na ko ba pare ndax ku nekk euh, euh, euh, boo xoolee décennie bu nekk dafa am nu ma ko mën a waxee dafa am phénomène nga jamono ju ne yàlla dafay indi benn phénomène ñi gëm yàlla nag dañu war a xam ne Sonko phénomène bu yàlla indi la pour xale yi ndax Sénégal boo xoolee quatre-vingt-sept pour cent ay jeunes lañu de 25 à 40 ans, de 18 à 40 ans du moins. mais nous nga avant après l'indépendance après l'indépendance nous 70 80 90 l'an 2000 mais ouais ouais ouais l'an 2000 avant l'an 2030 au moins dina am phénomène bi nous la Sénégal nous Sonko boo xoolee niveau d'étude am ak fi mu jaar nekkoon inspecteur des impôts te yaa ngi fiy gis euh, euh, euh, façon nit bu ne nga gis ñu tegle seeni i doctorat di teg di dem du wéy yënguwuñu feeñuñu yàlla indi Sonko bu ŋaaŋee ñëpp topp ko lu waral loolu nañ ko xoolaat mm-hmm. nañ ko xoolaat te uh, lenn de dinaa la ko waxaat ci lu ndaw uh, Sonko dafa boole li nga xamante ne moom la phénomène bi mu boole yi mu boole dafa bari te lépp mu ngi ko jële ci ay nit yàlla daf ko jële ci ay nit dugal ko ci ñoom mu doonoon yaakaar bu tos en Afrique muy Kwame Nkrumah muy muy muy uh, Patrice Lumumba muy Euh, euh, kii l'autre là nu mu tëddi. Euh. Nelson Mandela. Nelson Mandela. les panafricanistes daal. tey ku si nekk tey boo dem say gars yi liquide nañ la. Mhm. moom mu ñëw taxaw indi inse xoolal créé projet ba nga xamante ne ça a été depuis mille neuf cent x par des têtes ñu jël ko dugal ci mu génne loolu tabaxaat ko. indi ko li nga xamante ne moom la ñu waroon a départ depuis 60 mu tabaxaat ka indi ko teg si Sénégal yokk ci li nga xamante ne dafa tolloog jamono tegal ka Sénégal dama loolu ku ku si mënul ku si mënul si mënul tegu dem Sénégal fee doxi suuf ba faw sama wax nag ku ko mënul ku ko ku am xel kay déglu. bu man mii wax yow. ma ne man je suis socialiste authentique man parti socialiste laa bokk sama socialiste su bopp laa yor de sama parti bopp laa yor léegi toppuma kenn moi aussi pareillement PDS toppuma kenn sama socialiste su bopp mais Sonko mooy sama man Sonko laa la laa bëgg moom laa gëm parce que day def lu léegi nag euh, ñi ñi nekk suuf di wa parce que sa live toujours dama lay romb di la romb di la romb di la romb mais tay dama ne na taxaw si yow parce que si suba ba léegi sama lal bi ma tëdd jógewuma fi bi ma timis la doxantu euh, lu toll 1 km biir de tassap ñëwaat ñëwaat dal ci yow maintenant la xamal ben affaire kuy jal di jal da ngay xey tassap jal jalal la yowaay adduna lii fi am li nga am def ko sa biir li ngay dox dewal si doom aadama yi ak li ngay dawal si sa bàmmeel li tax ñu ne kër gu bon la medd ka gën ñiy xëccoo àdduna tey yëpp tey mu jaral leen ay bakkan mu jaral leen lu ne lan ñuy jël di ko dajale muy ajal alalu réew mi fan lañ koy dugal moo tax ku si laa dee sa biir dina neewi ku si laa di nga dem France ñu janise la ku si laa dee yàlla dina la xisaab xisaab yu bon bu dee na mën a la mm-hmm. jéggal mais kii ñëw tey tëgg Bercy Bercy la doon tëgg so Sonko dafa ñëw tëgg Bercy politique ne entreprenante waaw joxe ay prix gaa yi gaa yi gaa yi ñëw dugg ngir lan déglu déglu rek déglu message

yow mi yéen ñi xale am je le connais très bien parce qu'on a grandi ensemble hein? gis nga Barthélémy Dias bu fi si Babacar euh, Babacar Mbaye était en vie hmm. il sera il sera cuit parce que bu boobaa douche du mooy donne moi donne morceau favori parti socialiste il est indigne li muy def un socialiste du ko def

yàgg naa ci ligne mi nag di jégalu rek mais dinaa la xamal benn affaire bu ndaw. Euh, dinaa la xamal benn mbir bu ndaw. nañu dem jëli carte yi. Hmm. jëli leen carte yi. ku mu naqari nag nga jël sa carte dammaka. <laughs> teewul bu soobee yàlla sa live yi dama bëgg le 17. heure bii bu ko yàlla dogalee heure bi incha allah foo gisee foo gisee Chérif Ousseynou Laye wala Chérif Laye rek 66 bii. waaw ko ma wax ak àdduna. bu xoolal bu leen dara métti. ndax am na benn benn benn doomu tukkuloon la xaw ma la xaw ma lu mu doon. nekk ci àll bi ratatati doon càgg bu màgget ba nga xamante ne kenn xamul lu mu doon. Mm-hmm. ne dafa encaissé ay millions ba tax mu tok ci réseaux sociaux di wax man ab de dama ka ñaanala ñaanala ñaanala ñaanala ñaanal xam nga lu ñaan do xam nga ñaan mm. dama ka ñaanal ba yaayam yeggu li tax ma ñaanal ko nak li tax ma ñaanal ko da wax Ousmane Sonko wax ju ñaaw tax ma ñaanal ko ñaanal bi ma ka ñaanal nak say wu noké rek yaayam yeggu na saa yu doxee yaayam yëngu na. ay saa yu xefee yaayam yëngu yàlla ko yàlla delloo ak sagoom nag. ndax bëggoon doon ab rek bu taxee nga taxaw fii di ratatati mel ni béy bu dof gémme ngi mel ni gémme ngi mel mbaam tuun mbaam ga nga xamante ne dafa dem dafa dem cabinet bay pare waaye ndaw see bon tey moo bon ta banigaay <laughs> jéggal leen ma nag dégg ngeen. <laughs> lii ma toogal bul dem. ko woon a ñàkk a wax. waaw yow la nga wax c'est très bul ma ko non dëgg la dëgg la soxna si dama ne. télé la ñu waroon boo ko lancé woon léegi waa jàmb. waa Barthélémy man si plateau yi. yaw nan ngay mën a yow nan nan a rey Sénégal ren di ren gas leen ba ñu suul suul leen ba pare bëgg leen dekkal bëgg leen di wallu koy wallu moo ma jaaxal yow di nga rey nit ku ba pare di ko wallu moo ma jaaxal billaay waxati ko leen wallu Sénégal ah waay waay waay ñi yàlla ñi yàlla nañu dee ci lakk ak xorom amiin waay amiin naa si mënatul wax ay reeka jàpp léegi léegi sa xol sedd waa toos toos loo wax ci ah. taaru naasi bii ngay ah, sii naasi dafa taaru de beauté ah. africaine naturelle la fi wane beauté africaine naturelle la fi wane ah non non non gis nga gis nga nit boo triché wul rek boo triché wul rek yàlla day ànd ak ci lépp nag bàkke boo dul triché yàlla day ànd ak yow nit da jub Mhm. Sénégal képp ku fi nekk ànduloo ak Sonko ci programme bi mu teg nii. gi ñàkk ci baylaay gi ñàkk ci baylaay ne yow doo nit. billaay bañ bañ bëgg. est-ce lu waral lu ñuy daw. Mhm. xam nga lu waral ñuy daw. Mhm. Hmm. les lois d'amnistie bi nga xamante ne on doit les voter à l'Assemblée nationale. les audits yi nga euh, le président sortant la cité tegoon concom mhm. et les détournements de euh, de de biens publics yi nga xamante ne sa moom lañ def mhm. ma jox la ci mhm. euh, par exemple mam le product bi nga xamante ne la la là où je suis là où j'habite actuellement à Sangalkam il est il est venu s'installer sur une surface de 100 hectares qui appartient à une société. Ah. Et sur les 100 hectares, ah. sur les 100 hectares, le propriétaire avait fait trois forages d'une valeur de 300 millions et ils ont tout gâché. Implanté ce produit. Et c'est moi qui détiens le monopole de cette surface. Le titre est avec moi et je les ai chassés dama leen dàq ne xaj ñëw ñu ñëw di du bi bi alternance bi amee ñu ñëw di dugal ay câble ma fekk leen fa ak sama samay doom suul ko la gendarmerie des Scotch est venu et me demandait mais Lamane qu'est-ce que tu fais ma je c'est ce que je vous demande il veut il veut préparer un rapport pourquoi ñuy tra ñuy ñuy câbler si si suufu jàmbur ba nga xam ne titre foncier Mhm. sans charge. Et il a appelé Moudjoum def comme main libre. Est-ce que lorsque vous faisiez l'expropriation, le propriétaire est là-bas Non. Lui, non. Il nous a convoqué le lundi, nous oui, Borom, mais le, le, le, le, directeur du product de Sangalkam n'est pas venu, le coordonnateur n'est pas venu. Jusqu'à mhm. présent, c'est moi qui l'un fois de valeur, valeur, 100 millions ndax juróomi juróom-ñaari tracteur fa nekk ak ñaari mbaar ak seen affaire yooyu ñu teg foofu bëgg forcer et l'ISRA est là fa lañ ko waroon a def bu Sangalkam kam 300 hectares ils ont pris ces hectares affectés des généraux des commandants des colonels ñu jël ko calé calé calé si des des bàyyi si kaw titre foncier te loolu mën a ne te li gën a grave mooy ils ont fait des charges sur les titres dem leb si ay 100 millions ay 94 millions ay d'une li si lebal lebal xamul lu mu toll et lorsque l'alternance évolue ils ont annulé tous les baux lolo ma ci je annulation bobo nga dem nga nga littoral bi li ka la presqu'île du Cap-Vert ils ont tout vendu ça par fan la Ngor titre foncier jambour

non gars yi moom <coughs> tonton ñoom lépp loo xamante ni on a tout début son excellence monsieur le ministre may jaxaat fay lu mu ci def leer na dafa ñëw ni ñëpp nan arrêté travaux yi fi mu toll ni bëri na ci yoo xamante ni wax na ko nga ñëw jël terrain jàmbur lépp loo fu mënti def gars yi dañ koy démolir dañ koy toj c'est ça leur problème xam nga lii seen problème principal lu tax le procureur la le procureur ndaw laa ñu jël ko dugal ko si liste yi

bi ngay xiif faalew la bi ñuy rey say doomu réew ñi daan rey say doomu réew ñoo ñoo daan ànd toog di reetaan koo xamante ni bi facture yi chéré lijjantiwu la koo xamante ni bu réew mi daan toog di jooy danaan ànd ak ay yitam dem ba réewu jàmbur di fa tey ay sondel di jubilee ki njabootam kooku bu dellu seetee ñoom bi moom moo lay laajat kàddu réew gi boo amee ful la yet nga ko war a dàq jéem tonton en tout cas kontaan sama beneen tonton mi ngi ci kaw tonton patriote mais tonton Chérif jox ko jox ko yow bu demagum yow doyalaguñ ci yow xaar ma bàyyi tonton patriote mu nuyoo après ñu ñëwaat ci yow. waaw maa maa ngi déglu. <laughs> mais man maa ko patriote. waaw mais waaw mais waaw mais sama jarbaat bi yow moom ah yow moom tey kenn xàmmewu la. <laughs> déedéet kenn. macha allah macha allah la patriote day. patriote dafa war a dégg dafa war a bégee dafa war a yànji macha allah. ndax lépp voilà di nuyu bu baax a baax sa invité yi ah ak flowers yëpp mm. ñi ñi lay seetaan aussi ñu ngi leen di nuyu bu mm. baax a baax a baax di jéggulu a ah, ndax euh, voilà donc avant-hier dañoo xawoon jàpp tuuti moo tax euh, live yi euh, yëg nañ ko mais mënuñ si woon dugg xam nga yow moom sa live moom dañ si am cawarte ak Pastef di ci di ci dugg di di di joxe suñu xalaat ndax ñun suñu lépp Pastef la dañoo joxe suñu àdduna Pastef depuis 2017 comme ni ma koy mm. waxee voilà donc euh, amul amul amul duñu duñu duñu li koy koy waxee euh, ñu mu sotti rek ñu ñëw en fait dañoo dañoo liggéey ci projet bi euh, liggéey ci parti bi